Wallez-moi Nouridine. Wallez-moi Nouridine. J'ai des nouveaux pour eux. Partagez-moi Wallez-moi Nouridine. Voilà, xaarama tegalem ko sa te ñoom. J'ai du nouveau pour eux. imal leen doomi borom Touba yi teg kenn ku nekk sañ ko denc. juróomi doomi Serigne Touba ñoo nekk ci jumaa ji. Cheikh Mouhamadoul Moustapha. Cheikh Mouhamadoul Fadal. Cheikh Abdoul Khadir Mbacke. Cheikh Salif Mbacke. Cheikh Mouhamadoul Mourtada Mbacke. benn doomu Serigne Touba moo nekk Daaray Kaamil Cheikh Abdoul Ahad Mbacke benn doomu borom Touba moo nekk ci buntu armel yi soxna May Mbacke Zuhra mooy soxna May Laylatul Xadar benn doomu Serigne Touba moo nekk Daarul Minam muy Cheikh Mamadou Bachir benn doomu Serigne tubaab moo nekk pencum Serigne Souhaïbou muy Cheikh bu Mbacke fukki doomi Serigne Touba ak juróom-ñeent ñoo nekk ci biir armel yi nga xam ne ñoo nekk ci penku jumaa ji Cheikh Mamadou Lamine di Serigne Bara cheikh abdullahi borom Terbi, Syekh cheikh Mbake, Syekh cheikh aboubacrine Mbake, cheikh Mamadou kabir Mbake, cheikh abdou saman Mbake Sohna Fadja Mbake Sohna Assou Gawan Mbake Sohna soxna mbeen Mbake Sohna aminatu Mbake, Sohna may al kubra Mbake Sohna mominatu Mbake Sohna Khadijatu Mbake Sohna Khadija mi mo seer du ñoo bokk soxna Fatimatu Penda Buyo Mbàkke soxna Muslimatu Mbàkke soxna Mariama Kunta Mbàkke soxna Ami Cheikh soxna Jóob Mbàkke soxna Fatimatu Mbàkke ñooñ ñooy fukk ak juróom ñoo nekk ci biir armeel yi nga xam ne moo nekk ci penku jumaa ji fii laa koy pause partagez nous on continue partagez leen ñu ngi ñëw tey on a du quoi discuter voilà fii laa koy pause maa ngi ñëw nan waa gisi appelez moi les les les les dix Christophe là les les Omar Ndiaye tous les ah Aliou Ndiaye c'est pas quoi appelez tout le monde na ñëpp waa gis tout le monde venez venez voilà partagez leen tàggee leen woo leen gars yi partagez leen ko tàggee leen gars yi na ñëpp ñëw voilà wax gi nañ ñëw faut venir venez ici voilà partagez taguez les gars dugal leen ko fépp voilà saagakat yi ñu doon waxaat waaw borom tout le monde venez kaay leen tëju voilà fii laa koy teg nag toog en attendant ma lem ko comme ni ma koy defee saa su nekk en attendant nu lem ko yegg si leen ngeen ñëw toog kaay leen de leen ñuuxit on a de quoi parler tey venez xam nga dama leen génnee liste ngeen di siisu may wax ngeen di siisu léegi fu leen suul nag fu leen suul ku si nekk fu ñu ko suul lijjanti ji naa ko voilà fekk si na mo fi jàmm ak salam dégg yalla yàlla andi na mu dox ba ñew on va vous le poser nak wax ji clair voilà mais jël leen seen i bic seen feuille ngeen numériser les fils voilà am liste baa ngi fi liste bi génne leen affaire yi jël leen bic yi et vous notez combien d'enfants et vous allez me dire leur mère voilà Serigne Djili Mbacké Serigne Djili Mbacké sëñ bi sang bu baax a ah, bismillah kaay leen lii lépp baax na si gëstu xam-xam xamale ku xam-xamal sa morom voilà partagé leen de fii laa koy teg ba gars yi yegg si voilà on a discuter là come on come on come on cher cher cher cher da shit voilà ñëpp nañ na wàcc na ba zéro degré liste bi liste bi liste bi liste bi tey nag moom dinaa leen génneel beneen liste hmm. lem bi moom naa leen génneel liste bu mel ni lem hmm. Hmm. liste bu mel ni miel je vous attends dam leen partage leen tàgge tàgge sax su ko jaree di leen ah tàgge leen se i tur nañ ñëw tout le monde vient en attendant ñu lem ko ñu koy saf tey tey moom dina nu expliquer nu mu demee noonu su nekkee ñeenti jigéen ñoo jur lii man je suis par terre la ilaha hmm. bi kay da ngeen ko doon bañ andi naa leen lu ma leen di booleel si list bi ngeen boole ko bañandoo ko ku si nekk kay fuñ ko suul waaw ku si nekk fu muy nelaw dinañ ko lijjël vous l'avez dit dès le départ kaay leen ngeen nangu lu yàlla wax ngeen nekk fi di konkoolu ça pousse les gens à aller faire sortir les choses fii laay toog tey du mu koy yàqamti live bi du mu koy yàqamti partagez tant que gars yi nee naa leen cent cinquante personnes may soog a commencé nii wax tey moom parce que non ça non tey tey on en a rien à foutre on en a rien à foutre cent cinquante personnes wala ça ne sort pas et on tàmbale si loolu di dox woo leen tàgge leen tous les instructeurs waaw da ngay fen waaw lii dañ ko sos ah list bi amul na ñëpp ñëw ma wax leen fu leen fu ko suul na ñëpp ñëw ma wax leen fu ko suul waaw na ñëpp ñëw ñu génnee ku nekk fu ko suul quand tout le monde arrive on bu diir dire nag léegi xam nga 66 gos laa leen waxoon 33 femmes 66 gos moom laa leen génne list bi dina leer dina leer dina leer voilà dina leer de partager partager partager comme nous on ko faire, rek ça sama gaay partager voilà Partagez, partagez, partagez. On va aller trouver les 66 gosses. pour leen suul voilà ma nana ne ni que moy lo le di ngeen ma wax xale dom yu bëri yoy non yëpp ku leen jour kuy sen ndey yankaitai am ngeen sérieux problème daa leen ma lem ko rek cent quatre personnes laa gis nee naa leen tey wax gi duma ko fi génnee si ay 103 trois personnes ay wax gi 150 cinquante personnes ñu ñëw tok. ñu commencé parce que saaga yi su commencé xam ngeen ta dagan bi commencé fi day fess del. Gaay du ni fess del ay 200, 250, 300 cent ngay gis parce que sa way teppeeku na xam nga saa waaye rakkaaju no mo ngi wax de duñu comprendre nak genre vidéo yi demé di départ bi fu ñuy commencé duñ ko féké jamais yaa ngi comprendre fu sa way di ko nak foofu nak la ñuy ñëwé nak bëgg saga moo tax nag bii nag tey foog ñu fekkee ko pour ëllëg suñu ñëw di saga nu am lu ñuy tégaat encore seen bop yi wax gi day clair dé wax gi day dugg ci bop nit ñi duñu fi feul rek suñu nit ñi di wax do nga ñëw do comprendre lu nit ñi di wax doo comprendre fu nit ñi commencé doo comprendre lu andi wax gi rek nga ñëw nga bëgg saaga tout le monde si panel saaga kuy live saaga ñuy aimer saaga ñuy partager insulter tout le monde te yow lu ko commencé lu andi wax gi fekkee woo xamoo moo tax nag léegi nag ça ça suffit ça sufi na gars yi ñëw toog tout le monde ñëw fekkee ko na ko tout le monde ñëw fekkee après ça du ñuy ubbi line bi. voilà tay mom du ubbi line bi ubbi line bi bay ko mu dox ba mu neex partager len tay line bi sax day ubbeeku on ouvre tout on ouvre tous les frontières billahi wallahi sama digante ak señ tay dara du neex dara du neex ale ma dugal leen numéro yi tey line bi sax du koy ubbi Ja. Hej Ya, Ja. Ya. bisa bi sa si kanam duñ koy ubbi. lu leer laa ya la wax ba ñëpp partager balaa live bi di commencer tey j'attends tout le monde mau du ya ko yàqamti fenn j'attends tout le monde liste bi nee naa la dama génnee liste bi gars di sisu. nee ngeen damay feda nee naa leen nak léegi bu gën a dee laa dama leen andi bu ma leen di boole rek liste bi léegi ngeen gën joy. voilà ku si nekk fu ko suul booboo gën a ree ku si nekk fu ñu ko suul waa liste bi mooy doom yooyu noonu dama leen génnee liste bu am date de naissance am date de décès ngeen bañ ko ba tey mais comme nu ma ko waxee nag léegi ku si nekk fu ko suul boobu laa leen andil tey dolli lañ ko si liste bi fas yéenee xool nag nan ngeen nar a def ak moom voilà moo tax saagakat yi gars yi di wax yëpp fii laay toog di xaar nee naa leen cent cinquante personnes laay xaar nu soo a commencé wax bi su dul loolu noonu man je raccroche mon live ma dem ma toogi fële comme nu ma ko waxee continuer nag samay saaga ku ma fi fekk ma ñëw ma saaga sanday point baar wax gi jeex parce que comme nu ma ko waxee du ma ñëwaat continuer samay affaire ñëw teg ko si lu tar gars yi ñëw du ñu fekkee live bi fu mu commencé du ñu xam lan moo sulli wax gi ñëw bëgg saaga tout le monde fii nag ñëpp a koy fekkee ils vont entendre seen musiba ils vont venir seen musiba voilà man boog tu yàkkamtiwuma ko tay tay mom lay bu am sama temps laay yàkkamtiwuma ko fi lay tok xam nga diko siroté ba 150 cinquante alté nous so commencé liste yi du jeex nee naa leen combusi greñi eh greñi yaa ngi fi nit ñaa ngi di génnee ndank ndank das fanaanal yaangi ngi hey bañ la na jital deug rek te dëggu bañ la na wax deug bañ la na jital deug te hmm. ah wow sama ñuuxiti kay leen neena leen saaga su commencé leg su ma commencé pétard wala ma commencé dof léegi ba léegi bar bi juk voilà léegi bar bi juk su ma commencé dugg su bu dof bi léegi gën de 200 250 affaire yi di juk parce que boobu la gars yi bëgg mais léegi lu tax nag gars yi di poobar wala di yëkkati baar kenn du ko bëgg fekkee moo tax nag tey nag balaa maa poobar wala balaa maa kaani wala may xorom wala wala euh, may fël-fël ñëpp dinañ xam lu dàmbalement bi rek fu saa waay départ di jug dinañ ñëwaat saagakat yu fi jaari tàggee leen voilà les les di Christophe tàggee moi tout le monde nee naa leen tàggee tout le monde nu woo la ñëpp ennemi public numéro un yi tout le monde partagé ko sax si page publique cent cinquante personnes ma tegal leen fu nu suul nag léegi soixante six goos yi booboo gën a dee voilà parce que dama génnee liste bi ne ne lépp ay fen la fan nga jëlee liste bi ah da ngaa trafiqué liste bi ah liste bi da nga kaa li ay fan la ki mën na leen 33 femmes 66 gosses calculé gars yi bañ léegi nag 66 bàmmeel yi dinaa leen ko génneel ku si nekk fu mu toog fu ñu ko tëdd fu ñu ko teg nu mu tëddee kii nangam ak doom yi léegi nag yéen encore ngeen boole ko si liste bi vous allez nous expliquer nu mu fa demee rek voilà parce que loolu am nga xam nga mooy loolu. ku la andi liste andi la sa audio te bii nag du liste bi audio bu lay clarifier bu si nekk fu mu nekk la donc loolu moom après maa ngi xaar seen lay seen lay bi lay xaar fii lay toog di leen xaar partager massivement nee naa leen su dul loolu noonu rek ma commencé pétard xorom ndey ñëpp xorom tout le monde di xaar na ku dugg sama panel nee ma un deux wala trois ma xorom sa ndey tamit parce que lii mooy wax bi mënu doo nekk fii di xeex ay nit jóge fële xamuñu lan moo yëkkati xeex bi lan la nit ñi di wax nu nekk fi bëgg a am lu nuy yuux maa ngi leen di xaar sama gars yaa xam tiwunu ko tey yaa xam tiwunu gis naa Abdou sa digg la fa ndey yow dégg nga Abdou yow sa dëgg la fa ndey yaa koo yaakaar yaag sa askan yaag sa descendance ak sa future descendance seen dëgg la fa ndey saa yu ngeen jugee soo amee looy wax Fatoumata Dansokho wala ki nangam xam nga page am nga dem nga waxee ko foofu tey je ne suis pas d'humeur de su nekkee fii ngay jël pour ñëw di saaga nit ñi soo fi ñëwee yow ak ku nga yaakaar ak ku la ngemb ak ku la indi nga ñëw toog fii nii di saaga Fatoumata Dansokho ah yéen seen dëgg la askan au nag. tout un complet seen askan de un ba o zéro ba les futurs juddu ñoom ñëpp seen digg la fa ndey saa yu ngeen noqiwee yaa ngi comprendre saa yu ngeen aspirer espérer juufee naa ko seen digg la fa ndey yaa ngi dégg voilà léegi soo amee looy wax Danson xam nga fan mooy page nga dem ba si page am nga dem jàkkaarloo foofu nga lijjanti kook moom tey man j'ai des problèmes yu may lijjanti ak ñuuxiti yaa ngi dégg ku fi wàcc di kattalu nday nit ñi nu sa nday je ne suis pas d'humeur je suis pas d'humeur tey di dugg cette affaire partagez la nee naa 150 personnes maa ñu ñuuxi ci tey ma téegal seen nday un an un wax gi de on est fatigué Mais, ngi xaar yi am ay affaire expliquer quoi tu as quelque chose à dire va le dire dans sa page mais pas venir ici waaye yaay yaay daa nga am di am looy expliqué seen data nday yéen ñëpp yàqamtiwuma nee naa leen tey yàqamtiwuma cent cinquante personnes on commence le live ma tegal leen lu extraordinaire on y part nulle part mënuñu suñu toogee fii di wax suñu fulla mu fees ay genre imbécile yu génn di am lu ñuy expliquer léegi su wax ji di commencer kenn du ko bëgg fekkee nañ ko fekkee tàggee tout le monde partagez ça déggoo lu may wax cinquante personnes au commence la live dama leen génne list gars yi di bañ list gi truqué foo jëlee liste gi liste gi nangam la la la dugg na fii génn fii léegi nag ku si nekk fu nu suul ndeyam andil naa leen ko nag booboo gën a dee. naaw naa dolli leen lu ngeen di dem duuli ji wala lu ngeen di dem waxi ji maa ngi nii toog voilà léegi nag balaa wax gee commence je veux voir tous les ñuuxit ñoo fi dàq weddi ñoo fi dàq wax foog nu yegg si suñu yeggsee ba pare su ma paree laay ma partagé waat audio bi maa ngi leen di xaar voilà maa ngi leen di xaar de yéen ñëpp voilà instant gii moom wax bi du ay waxu bun ñun temps instant instant gii nii waxu bàmmeel leen toll voilà du ay waxu bundé xawma nday xawma lan aj ki yeen ak xolal aji sar yeen ak di défendre aji sar yeen ak wa kodas yeen ak wa kodal feul feul yeen ak ñuy tok sa ba di xalaat di janner aji sar bay xalaat sax amna xalé bu tuddu aji sar seen leufal nday yeen a ngi comprendre tunu ba jëm sen jaafu maam seeni tergaleesu nijaay sen 133 askan sen leufal ndey maa la ko wax voilà génn leen ko rek ma kat seen ndey du ma jëlagul appel yi da ngeen may may ba si karam lu doxal toj seen cottu ndey képp ku génn jël aji saar aji saar ko aji nen ko aji seen lëfal ndey voilà mboofu leen toll balaa leneen di am aj nen ko seen digg lëfal ndey di ngeen aji nu ngeen koy aji aj nen ko seen tuunu ndey voilà un dooma xaraam yow laa doon xaar Aliou toogal xaar on attend les autres on attend tes collègues yéen la ñuy xaar benn doomaraam yegg si na Voilà, on attend tout le monde. Hey, Tay, maintenant, Tay, you got me fucked up. Aïe, je veux voir tout le monde. Voilà, je veux voir tout le monde. Wax Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Hum. Ah non, faut jëlee liste bi. ah liste bi kilo. la nee aujourd'hui, vous je audio liste bi Bobo, di yenn di di di toj seen cottu ndey un à un andi naa leen audio bii pas du liste jël leen seen i big ak feuille ngeen toog ngeen compter su ngeen paree ngeen ñëw ngeen wax Aliou Ndiaye maa ngi lay xaar balaa di commencer dama jëli big ak feuille nga daal di ñëw toog voilà nga daal di fas yéenee nag compter commencer di compter 33 femmes 66 gosses laa la wax noo jox la ku si nekk at de date de naissance ak date de décès léegi nag bàmmeel yi feeñ nañ ku si nekk fuñ ko suul. léegi nag soo si amee looy discuter wala ki nangam rek comme nu ma waxee rek prenez les bigues les feuilles vous écrivez ngeen daal di noter ngeen ñëw toog tey la tey maa ngi leen di xaar nag voilà waxkatee laa laa laa kii di ngeen ma expliquer nan la ñeenti jigéen eh wala wala xaw ma lan comme nu ngeen wax mu ñoom ñooy soxnawu sëñ bi xaw ma nan la demee nan lañ juree lii lépp voilà loolu tey di ngeen nu ko expliquer hmm. ñoo ngi leen di xaar. nee naa leen tey de moom mooy loolu noonu waxuma leen loolu en sa gars yi di yegsi dégg naa seen booy boobu demoon cant ya doon daanu leer daanu leer jël paake jam ko boppam ah ah ah, ah, ah, ah <laughs> ba ne boobu leer boobu leer saa waay daanu leer jël paake jam ko boppam dee yaa ngi comprendre gars yi daal di génn nu ne la ndogalu yàlla la yàlla moo ko ne mu dem si ay cant daanu leer jël paaka jam ko boppam déggoo ma de nee naa la yooyu xeetu leer gars yi bàyyi neen xeer yi gars yi jëlatuñu ay xeer dóor ko seen bopp gars yi jëlatuñu brique gars yi jëlatuñu kuur kuur yu ngande yu doon jël di ko dóor seen bopp tibb yu doon mbëkk mbëkkatuñu léegi seen i bâche seen i installation ah tu mbëkkatuñu léegi seeni i tibb legui gars yi paaka la jël paaka di jam sen bop fetal yaangi ñew manam ni ko serigne sañu tok ñom ñongi taali ngi taal yi fetal ëllëgee keneen dina jël fetal tek ko si bopom door mu tak be lu ma wax de allons-y seulement ndank ndank lu si ba la jëm tok len di wax rek xam nga ñu du wax ngeen topa ba di expliqué toog paaka yi gën nak jaasi le léegi yaangi dem si tianti yi lan mo leen di duggal ñen wax leen di wax ba ñuy jël ay paaka di ko essayer si seen biir di ko jam si seen biir déggoo lu ma leen wax de léegi nag comme nu ma ko waxee attendons seulement fan leen toll fa leen siy topp moom mooy lan nit ñi léegi dinañ toll foo xam ne balu fetal ay fetal la ñuy jël ay fetal la ñuy jël di ko tiire seen bopp yéen camp leen rek xaar leen rek non Sénégal nee naa leen fu ñu jëm moom ndox amu fa

lors d'un chant au Magal de Daaru Salaam se plante un couteau et meurt dégg nga de frère am sax si commentaire yi ah, ba bay dugg sax si commentaire yi sa di xool baa ngi fay gis frère moo ngi am lu muy expliqué sama ordinateur bañ naa ubbi affaire bi sànq si sama téléphone laa ko ubbee ngeen xool Dakar Buzz nekk dem leen xool ngeen xool affaire bu baax ngeen dugg ngeen xool Mbàkke mbake nee naa la un jeune élève se poignarde si ay daanu leer ngeen dugg si biir. ngeen lire commentaire yi ngeen lire touti commentaire yi rek nee naa vous allez mourir de rire vous allez à mourir de rire parce que tellement ni que le pays va en couille nit yaa ngi àgg si domaine bo xamné moy lool da ngay waru quoi légui nak comme que matal même 150 personnes yi légui nak on va commencer l'histoire tok len nak ngeen déglu bu baax jël len seni i bic jël leen seen i ngeen di bind bu notee tous les trucs ngeen déglu ngeen jël kook liste bi après nag ma xorom seen cottu ndey nag yéen ñuuxit ba ngeen xam ne que lépp dëgg la. ñu limal leen doomi borom Touba yi ak kenn ku nekk fañ ko denc juróomi doomi Serigne Touba ñoo nekk ci jumaa ji Cheikh Mouhamadoul Moustapha Cheikh Mouhamadoul Fadal Cheikh Abdoul Khadir Mbacke Cheikh Salif Mbacke Cheikh Mouhamadoul Mourtada Mbacke benn doomu Serigne Touba moo nekk Daaray Kamil Cheikh Abdoul Ahad Mbacke. benn doomu borom Tuubaa mu nekk ci buntu armel yi soxna may Mbàkke Zuhra mooy soxna may laylatul xadar benn doomu Sëriñ Tuubaa moo nekk daarul minan muy Cheikh Mamadul Bachir benn doomu Sëriñ Tuubaa moo nekk pencum Sëriñ Sohaybu muy Cheikh Sohaybu Mbàkke fukki doomi Sëriñ Tuubaa ak juróom-ñeent ñoo nekk ci biir armel yi nga xam ne ñoo nekk ci penku jumaa ji Cheikh Mamadou Lamine Mbàkke di Sëriñ Baara Cheikh Abdullahi borom dër bi cheikh Ibrahima Mbacke cheikh Aboubacrine Mbacke cheikh Mamadou Kabir Mbacke cheikh Abdou Samad Mbacke soxna Fat Dia Mbacke soxna Assou Gawane Mbacke soxna Mbène Ngaabu Mbacke soxna Aminatu Mbacke soxna May Al Kubra Mbacke soxna Mominatu Mbacke soxna Xadijatu Mbacke soxna Xadija mi moog Cheikh Abdou Khader ñoo bokk waajuru jigéen soxna Fatimatu Penda Guyo soxna Muslimatu Mbacke. soxna Mariama Kunta mbakke soxna Ami Cheikh Mbacke soxna Diop Mbacke soxna faatimatu Mbacke ñooñu ñooy fukk ak juróom-ñeent yi nga xam ne ñoo nekk ci biir armeel yi nga xam ne moo nekk ci penku jumaa ji fukki doomi Serigne Touba ak juróom ñoo nekk ndaam daaru alimul xabiir cheikh Muhammadul Muxtaar Mbacke cheikh Muhammadu Abdullahi Mbacke cheikh Abdul Muhayminu Mbacke cheikh Abdul Baaxi Mbacke cheikh Muhammadul Muxtaar Mbacke cheikh Aboubacrin Mbacke cheikh amidu Mbacke cheikh Mouhamadou Abdoulahi Mbacke cheikh Abdoul Khoudous Mbacke cheikh Mouhamadoul Kabir Mbacke soxna Aminatu Mbacke soxna Tahiratu Mbacke soxna Maymunatu Mbacke soxna Maskuratu Mbacke soxna Roqeetu Mbacke mooy fukki doomi Sëriñ Tuubaa ak juróom yi nekk ndaam ci benn baat lañ nekk ñoom ñëpp fukki doomi Sëriñ Tuubaa ak benn ñoo nekk xuru Mbacke kenn rek moo ci beru fukk yi ñoo bokk benn barab buñ nekk. ki beru mooy Serigne Abdou Salam ñu ñi ci des nag fukk yi mooy Cheikh Mamadou Abdoulahi Mbacke Cheikh Abdou Jamil Mbacke Cheikh Abdou Wahab Mbacke Cheikh Abdoul Baaxi Mbacke soxna Aminatu Mbacke soxna Salimatu Mbacke soxna Mariama Mbacke soxna Muhsinatu Mbacke soxna Fatimatu Bintu Mbacke soxna Mariama Mbacke ñeenti doomi Serigne Touba ñoo nekk Mbacke Bawal Cheikh Mouhamadou Yeddaali Mbacke ma ngi jaayeen cheikh Mouhamadou Abdou Khadir Mbacke mi ngi ci barabu Serigne Mboussobé ci armeli Mboussobé yi cheikh Mouhamadou Kabir Mbacke ak soxna Fatimatu Mbacke ñu ngi ci wetu stade bi loolu na xam naa ñu ngi koy jéggulu waaye mm, foofu tam sëriñ bi gennay jamono lañ wax moo tax sax njabootu Mamour Diarra borom saam lu baree bari danañ faral di wax ne barabu fowukaay boobu dañ ko faa war a jële ndax dafa jege lool fi sëriñ bi gennee jamono kon ñoom foofu lañ nekk Euh, benn doomu Serigne Touba moo nekk Mbàkke Kajoor boo xam ne gis nañ barabam muy soxna Astu Kajoor soxna Sayna bu nag njort nañ ne fa la nekk waaye leeruñu waaye ci doomi borom la bokk ñaari doomi Serigne Touba ñoo nekk Mbampuna Mbampuna nag mi ngi ci ginnaaw ndulo soo jógee Mbàkke jëm boo rombee ndulo tuuti boo xoolee sa wetu càmmoñ da gis benn tableau buñ bind Mbampuna soo ko laajtee ñu won la ko. kooku ñaari doomi borom Tuubaa fa nekk muy soxna Umu Kalsum Mbàkke ak soxna Xadijatu Mbàkke soxna Xadija mi itam moo Cheikh Mamadul Basiir ñoo bokk soxna Fatima du Maam euh, benn doomu Serigne Touba moo nekk Kër Mandumbe Kër Mandumbe nag man ci yoonu Louga dëkk bi ñuy wax Njaañ nag la nit ñi di gën a miin waaye boo fa demee danañ la won dëkk ba benn doomu Serigne Touba moo fa nekk muy Cheikh Mouhamadou Abdoulahi benn doomu Serigne Touba moo nekk Gédé Bousso muy soxna May Muunatu Mbàkke moom nag ku yàgg la ndax 1914 la gane jamono moom sëñ Abdou Lahad ñoo maase yaayam tam mi ngi tudd soxna Seyna bu Mbàkke moom sëñ Mbàkke Kajoor moo ko jur bi mu ganee jamono nag euh, dafa fekkoon sëriñ Tuubaa séddi waay juróom jigéen sëñ Mbàkke Buso muy càmmiñam mu dem fa nag gane ko mu wàcc fa liggéey ñu yëgal ko sëriñ Tuubaa sëriñ bi wax ne nañ ko denc foofu ci gede ñu denc ko ci biir armeel ya donte barabam nag sëriñ bi wax ne nañ ko denc foofu ci gede ñu denc ko ci biir armeel ya liggéey ñu yëgal ko sëriñ Touba sëriñ Touba sédde waa juróom jigéen sëñ Mbàkke Buso muy càmmeñam mu dem fa nag gane ji ko mu wàcc fa liggéey ñu yëgal ko sëriñ Touba sëriñ bi wax ne nañ ko denc foofu ci gede ñu denc ko ci biir armeel ya donte barabam nag yombul la gis waaye ci biir armeel yi lañ ko denc ndax dafa yàgg lool muy soxna may ñaari doomi Serigne Touba yi des muy Assane ak Ousseynou te ñu bari xamuñ leen moom itam jëlee naa ci kilifa gu baax a baax a baax mu wax ma ne ñu ngi leen denc Fass Touré waaye loolu dafa jiitu géej gi moo tax ñoom itam gis seeni barab yombut waaye foofa lañ nekk lii mooy juróom-benn fukki leeri Serigne Touba ak juróom-benn yi nga xam ne. ñaata juróom-benn fukki ak juróom-benn ñaata laa leen génne ñaata list la yusuf bi doom bi ñaata la seen fuki ñaata la ngeen compté ngeen ah juróom benn fukki ak dégg ngeen wolof man de xam naa sama wolof baaxul parce que gars yi nee na ab ndreng laa xam naa ndreng bi déggul wolof yéen njaayeen yi nag yéen wolof la ñeen ñi dégg wolof dimbali leen ma si lim bi xaar leen ma tegalaatal leen ko jàppale leen nu lim bi voilà mom itam jëlee naa ci kilifa gu baaxa baaxa baax mu wax mané ne ñu ngi leen denc Fass Touré waaye loolu dafa jitu geejgi motax ñom itam gis seeni barap yombut waye fofu lañ nekk lii mooy juroom benn fukki leeri Serigne Touba ak juroom benn yi nga xam ne def nañu ay gëstu yu leera leera leer tuddu seeni tur ba pare gis seeni barab ñetti barab képp lañ ci gisul waye juroom benn fukki barab ak ñetti yépp ku ko bëgg a gis mën nañ la ko wan ñett rek lañ ci gisul muy barabu soxna Seynab Mbàkke teewul nag ñu njort ne ma nga Mbàkke Kajoor barabu sëriñ Asan Mbàkke ak barabu sëriñ Useynu Mbàkke jële nañ tam ci kilifa mu wax ne ñu nga Ture waaye dañoo yàgg moo tax bañ fa demee tam gisuñ leen waaye wér na ne ñoom ci njabootu sëriñ bi lañ bokk ndax waxoon naa léegi bayit wi nga xam ne ci la sëriñ Musaa Ka tudd seen waajur ba pare tuddaale leen di ummina mañ tudd ok la laajte ndax il est fiable wala il n'est pas fiable xam nga lan may wax gi si yoonu sëñ bi ngeen nek no si yoonu sëriñ Touba te comme numa waxe bu len nangu don ay ngaaka ci affaire bi ay nit yu ñuy remouver rek donc yeen war ngeen am tamit sen xel di di dem mo ngi len di gennel beuy bu si Moussa Ka wax yeen se bopam nangu ngeen Moussa Ka ah Moussa Ka amul murid bu kay ah donc nag Moussa Ka moom moo wax moo ko tudd si bëy tudd leen si tudd seeni waajur ndax nag léegi yéen ay ñuuxit yu ndaw man laa bëgg xam ndax yéen a koy dindi wala yéen koy changé wala yéen si siy teg leneen parce que un moment à la fin vous nous emmerdez déglu leen rek déglu leen jar jar jarul buuxante jarul tëb jarul yuuxu. waaye wér na ne ñoom ci njabootu sëriñ bi lañ bokk ndax waxoon naa léegi bëy bi nga xam ne ci la sëriñ Moussa Ka tudd seen waajur. ba pare daal leen di ummi naa mañ tudde faati asanaa maynu useynu dellu maynu asanaa te soxna faati asan Jóob moomu nga xam ne mooy seen waajur mooy waajuru sëriñ baaxir buso moom sëriñ bàkke buso te soxna soosee am na ak sëriñ bàkke lu jege fukki bant ci gëstu yi nga xam ne def nañ ko lii nag lu tax ñu def ko mooy sëriñ bi njabootam waruñoo réer war nañoo fexe ba xam leen war nañu fexé tam ba tour yi ci gëna siiw nga xamné mourid yi am pestef yépp te bëgg njabootu sëriñ bi ñu bari ci ñoom tudde nañ leen ay doom melni ni cheikh mamadou sa mel ni cheikh mamadou fadal mel ni sëriñ Salih. ak ñeneen ak ñeneen ci ñi nga xamné tok nañu khalifa ak seeni jigéen ku mel soxna may ku mel soxna fadja ñu nga xamné xamné xam ngeen ni ki di wax sax yeen ni di wax naan ay murit ngeen ki mo len tane mom wax na len lu tax lu musu djublu bañ njabotu serigne bi reer neena na duñ koo war xam donc xam len njabotu serigne bi bañ mu reer pour nu xam njabotu serigne bi yeb mo tax mu djublu si donc ki yeen gëno len ko nek murit gëno len ko nek murit mom héritage am neena lay bañ mu reer mom lay bëgg xam le mom legi gënne na nak 66 doomi ñew na tekna na. léegi nag ñun nag suñu xel mooy matal lu si des c'est tout déglu leen rek jarul di tëb di dal xaaral audio bi léegi mu pare nu pelloo. ñu bu baax a baax ñi nga xam ne xamuñ leen tam war nañoo fexe ba seeni tur sax fi ngir Serigne Touba moom lépp lum laal day jëm kanam rek di jebbi di naat bëgg guñ bëgg nag ñu fàttaliku doomi borom Touba yi te xam seeni tur loolu moo tax ñu def téere bi tudde ko yoonu ziyaara barabu doomu borom Touba yi te Serigne Touba loolu daf ko ñoroon ba tax mu wax ne zur man xeb wa in zatat bika daaru wa xaale min dunihi sahlun wa awhaaru laa yamna annaka buxdun min ziyaaratihi inna al muhibba liman yahwaahu zawaaru kon ki nga bëgg a ziyaare bu ay montagne doxoon sa distance ak moom war ngaa fexe ba jiim koo ziyaare moo tax ñu defar téere bi tudde ko yoonu ziyaara baragu doon borom Tuubaa yi ñu ngi ñaan na képp ku tegtalu ci téere bi wala kàddu yi ba ziyaare doomi borom Tuubaa yi yàlla defal la njéggal te defal ñu ko ci seen barke. foofu am naa lu ma metti lool lépp nga ko teg si borom Tuubaa léegi lu tax yàlla war leen a jéggal te ñoom demuñu seetu fu yàlla teg ay affaire ñoom lu dem seetu fu benn nit na leen Serigne Touba jéggal na leen Serigne Touba jéggal soo bëggee yàlla jéggal la da ngay def lu yàlla bëgg. ak lu yàlla santaane c'est ça le truc bëgg yàlla jéggal la da def moom lu yàlla bëgg ak lu mu santaane mënoo dem def lu keneen bëgg ak lu keneen di santaane ba pare nga si xaar fayum yàlla non demal kooku noonu nga defaral lu mu bëgg mu fay la yàlla amul fenn fu mu bind ni topp leen nit ma fay leen non amul fu ko yàlla bind amul fenn amul benn fenn fu yàlla ne topp leen nit ma ma fay leen non au contraire daane su ngeen toppee nit mooy weddi ngeen ma yee booboo gën a dee donc nag mënoo leen def lu ngeen di def lépp def ko si ay kiraamaw benn nit heurum peyoor jot ngeen dem keneen war leen fay loolu mënul ne yow da bëgg nit kii fay la soo bëggee nit kooku fay la da dem nekk si nit kooku noonu war fay lu mu bëgg mais nga bëgg dem servir keneen ba pare léegi keneen a lay fay c'est comme si nga ñëw nga liggéeyal ma liggéeyal ma ba pare ma yónni la si paate wala Samba wala Aliou ne ko demal mu fay la si yan base si yan base donc comme nu ma koy waxee rek mbele mbele yow xam nga tëb di yuuxu ki di bañ au moins andi dara teg ko gën nit ñi ñoo ngi dem di gëstu di gis di àndi di teg Nous kay waxtane mais am na ñoo xam ont andiwuñu nous mais lo tek nous ont fait souf déggoo ma de néna nous dama liste ngeen di joy. ah liste bi ah mën len liste bi yéen seen de ma leen De wax arrêtez d'écouter avec le cœur et d'écouter avec l'esprit mën na leen génnee naa leen liste bi ñaari façon nga nekk ah, ah, ah, ah mën na leen dama leen ko génnee si nasaraan génnee leen ko xolal si alquran nu bind ko si arab bokk nu bind ko si arab pas si alquran astafurlah mais si arab mën na leen te ñu ko sa ñu ko ñu ko ñu ko def mën na leen ay murit leen ni yee ñu leen gën a saadiix ñoom ñoo toog bëgg denc histoire bi nu daa di dem daa di recenser ñëw te danoo wàññi ba mu dem 33 des 66 mën na leen mais si accusation yu njëkk ya su nekkoon accusation yu ñu tëye woon c'est 85 loolu si biir Baye Fall yi duñ koy ndamoo Mame Serra Fall 90 femmes Serigne Touba 85 da ngay dégg nii Baye Fall yi di la ko wax nii di ko waxee di ko ndamoo jàppee ko loo xam ne mooy loolu ñun daa ko dégg ba ñu nekk si biir mouridisme voilà duñ ko doon dégg. mais bon, nous ñëwee gars yi wàññi wàññi wàññi ba mu yem 33 ma ne la amul problème y a bind seen 33 y a teg parce que daf ma leer fu ma jëlee affaire yi daf ma ko wax ma génnee tegal leen ne leen boo léegi man leen laa bëgg mooy ngeen kan, expliquer ma wax ki ay murid ñoo di kii ñoo ko lijjanti 66 goosa ngi noonu léegi wax leen nu ñuy sen day. parce que ku dem ba recensé ba meli, recensé nen day. man dama leen jox date de ndey jox leen dat de naissance jox leen date de décès ngeen bañ léegi jox tey nag andi naa leen bàmmeel yi booboo gën a dee ful leen suul ku si nekk fun ko suul bay ay dizaine yu dizaine ngay dégg si ay gox man loolu man loolu amazing wu ma lu ma amazing mooy léegi doom yooyu noonu yëpp si digga loolu comme tournée sexuelle maa ngi jéggalu quoi comme comme tournée sexuelle quoi mais si bien, il y produit boobu non. il ban temps la de 7 tonnes et demi c'est ça mon problème hmm? c'est ça le problème Allez, on Nous Nous ay Nous nous nga voilà ñoom jox nañ la bàmmeel yi jox nañ la sëñ yi fu mu ne jox nañ leen fu ñu ko suul ku si ne soo xool ay lu da ngay dem nga visiter su la ñoree mu toll ñun foofu nuy wax ñun daf noo biir moo tax tey man ba ma ko déggee daf ma neex man bàmmeel ak affaire yi nuy ma bi parce que fu lu tax gox bu si nekk dafa am ay base u Baye gox gu fa nekk am na ay détachement wu Baye Fall yu fa nekk taxaw créer fa benn base daf ma leer léegi yow soo amee lay toog ay duulu kese la ñun on s'en fout la ñuy leeral dul lool noonu la ñuy leeral dul yooyu noonu lañ ñëw leeralu si soo amee dangay dem ba si bàmmeel yooyu noonu nga wër ko nga dem wax ñu ko fa def di naan ni ko ñooñu leen fa suul nga dem na leen di nuy duul comme ça nga dem gérer kook ñoom yaa ngi comprendre ñun duul yooyu noonu ngay ñëw fii di jooy bopp ba léegi ñun moom la ñuy jéem a leeral soo amee looy wax da ngay dem ba foofu noonu nga wax ko fa yaa ngi dégg mais gox yu la wax yëpp chaque année waxuma la rek de mais du ñuy màggal daa am ay màggal daam ay gàmm yu fay xew poroxaar yaa ngi fay xew léegi nag comme yow nu ma waxee yow euh, du loo ko meree du loo ko naqarloo parce que lu tax yow ab mbaam bu nu accueillir nga yow xamoo yow juddoo si màggoo si xamoo si tous yow ab simple fanatique nga ab mbaam nga boo xam ne du la force ab douce andi la bëggoon laa raxas moo tax yow comprendre man je parle avec les Baïfal musulmans nés de naissance, Baïfalisés depuis le départ, qui connaissent le pays, quoi. Y'a une comprendre. Je ne sais pas ben nday mbam, bo xamné que Alif Boudjoub sa xamul nan lañ koy représenté Y'a une comprendre. duul yooyu noonu soo amee loo koy wax nee naa dangay dem nga lijjanti ko foofu nu mu la ñoree ba ngay toog nga ne bëgg nga sëñ bi demal nga lijjanti ndeyam foofu noonu ñun def nañ suñu partition jox nañ la léegi demal kenn du la jox jabar kattal la ko ngénteel la ko ba pare jël doom bi yoreel la ko mënul ne va te démerder loolu lan leen wax léegi nag wax gi moom mooy Sebo nangeen góor góorlu na ngeen góorlu lan leen wax ngeen tontu nu léegi si 66 goos yooyu noonu ñuy seeni baay wala ñuy seen ndey yaa ngi wax gi clair man après dinaa leen partager audio bi ku si nekk jot ko ku si nekk am si def ko sa daas fanaanal nu daal di avancer comme nu ngi koy waxee boobu ba léegi. duul yooyu noonu nu fi nekkee si biir dëkk bi di ko duul ñun dina leen ko exposé mu leer nañ nee na leen di ngeen bàyyi dëkk bi ngeen jël en otage wa ilaa nu sulli duul yëpp teg ko si kaw mu leer nañ nañ nañ nañ nañ nañ point barre voilà léegi nag ku si am looy naqarlu rek naqarlu ko sa lëfal ndey voilà ñu xit bu si am lu muy naqarlu wala lu muy wax rek naka naqarlu si lëfal ndeyam voilà ñu xit buy am lu mu siy saaga dolli saaga nen ko sa digg la falu wasi la ku nga yaakaar àdduna ak alaaxira comp nen dugal ko si jaafu ndeyam saa yoo yeewoo saa yoo xalaatee lu bon ba bëgg koo génnee sax si wax gi jël nen wax googu noonu multiplier ko par l'infini saañ ko sa saañu lëfal ndey wasi la voilà ku nga yaakaar ndey àdduna ak alaaxira miche yi nen ndeyam si miche yu njëkk ya point ñuuxit bu mu nakar li rek nga paré pour gëné musuba musuba nañ ko sa lëfal ndey déggoo lu mo len wax tontu len wax gi tay ay gëna fokk yu ëpp kat len nday ye ñep voilà et bép bu am lu muy wax rek kat na ko sa nday voilà fi mom tay tay da ngeen ko dégg di ngeen ko dégg wala ma tak sen ciot nday yeen waaw nga gastaram marak waaw waaw tay dama koy biisaat oola rëbis luy naqari xol yi dama koy rebis doomi borom Touba ak kenn ku nekk fañ ko denc juróomi doomi Serigne Touba ñoo nekk ci jumaa ji Cheikh Mouhamadoul Moustapha Cheikh Mouhamadoul Fadal Cheikh Abdoul Khadir Mbacke Cheikh Salif Mbacke Cheikh Mouhamadoul Mourtada Mbacke benn doomu Serigne Touba moo nekk Daaray Kamil Cheikh Abdoul Ahad Mbacke benn doomu borom Touba moo nekk ci buntu armel yi soxna May Mbacke Zuhra mooy soxna May Laylatul Xadar benn doomu Serigne tubaab moo nekk Daarul Minan muy Cheikh Mamadou Bachir benn doomu Serigne tubaab moo nekk pencum Serigne Souhaïbou muy Cheikh bu Mbacké fukki doomi Serigne tubaab ak juróom-ñeent ñoo nekk ci biir armeel yi nga xam ne ñoo nekk ci penku jumaa ji Cheikh Mamadou Lamine Mbacké di Serigne Baara Cheikh Abdoulahi borom dër bi Cheikh Ibrahima Mbacké Cheikh Abou Bakrin Mbacké Cheikh Mamadou Kabir Mbacké Cheikh Abdou Soxna Fat Jeex Mbacké soxna astu gaawaan mbàkke soxna mbeen ngaabu mbàkke soxna aminatu mbàkke soxna may alkubra mbàkke soxna moominatu mbàkke soxna xadijatu mbàkke soxna xadija mi moog seen Abdu Xaadar ñoo bokk waajur bu jigéen soxna fatimatu penda buyo mbàkke soxna muslimatu mbàkke soxna mareema kunta mbàkke soxna ami cheikh mbàkke soxna jóob mbàkke soxna fatimatu mbàkke ñooñu ñooy fukk ak juróom-ñeent yi nga xam ne ñoo nekk ci biir armeel yi nga xam ne moo nekk ci penku jumaa ji fukki doomi Serigne Touba ak juróom ñoo nekk ndaam daaru alimul xabiir cheikh Mouhamadul Mokhtar Mbacke cheikh Mouhamadou Abdoulahi Mbacke cheikh Abdoul Mouhayminu Mbacke cheikh Abdoul Baaxi Mbacke cheikh Mouhamadul Mokhtar Mbacke cheikh Aboubacrin Mbacke cheikh Amidou Mbacke cheikh Mouhamadou Abdoulahi Mbacke cheikh Abdoul Khoudous Mbacke cheikh soxna Aminatu Mbacke. soxna taahiratu mbàkke soxna maymunatu mbàkke soxna maskuratu mbàkke soxna roqiyatu mbàkke mooy fukki doomi sëñ Tuubaa ak juróom yi nekk ndaam ci benn barab lañ nekk ñoom ñëpp fukki doomi sëñ Tuubaa ak benn ñoo nekk xuru mbàkke kenn rek moo ci beru fukk yi ñoo bokk benn barab buñ nekk ki beru mooy sëriñ Abdou Salam Mbàkke ñi ci des nag fukk yi mooy cheikh Mamadou Abdoulahi Mbàkke cheikh Abdou Jamil Mbàkke cheikh abdou wahab mbake cheikh abdul bahi mbacke soxna aminatu mbacke soxna salimatu Sohna soxna mariama Sohna soxna Sohna mbacke soxna fatimatu bintu mbacke soxna mariama mbacke ñeenti doomi serigne touba ño nek mbake bawal cheikh muhammadu yedali mbake ma ngi jaay yeen cheikh muhammadu abdou khadir mbake mi ci barabu serigne bu sobe ci armeli bu sobe yi cheikh muhammadul kabir mbake ak soxna fatimatu mbake ñu ngi ci wetu stade bi loolu xam naa ñu koy jégalu waaye euh, foofu tënd sëriñ bi gane jamono lañ wax moo tax sax njabootu Mamour Diarra borom saam lu baree bari danañ faral di wax ne barabu fowukaay boobu dañ ko fa war a jële ndax dafa jege lool fi sëriñ bi gane jamono kon ñoom foofu lañ nekk euh, benn doomu sëriñ Touba moo nekk Mbàkke Kajoor boo xam ne gis nañ barabam muy soxna astu Kajoor soxna say na bu nag njort nañ ne fa la nekk waaye leeruñu waaye ci doomi borom Tuubaa la bokk ñaari doomi Sëriñ Tuubaa ñoo nekk na Mbampuna na nag mi ngi ci ginnaaw Ndulo soo jógee Mbàkke jëm Ndulo boo rombee Ndulo tuuti boo xoolee sa wetu càmmoñ dana gis benn tableau buñ ñu bind na soo ko laajtee ñu wan la ko foofu ñaari doomi borom Tuubaa fa nekk muy soxna Umu Kalsum Mbàkke ak soxna Xadijatu Mbàkke soxna Xadija mi itam moo Cheikh Mamadul Basir ñoo bokk soxna Fatima Dumaan Euh, benn doomu Serigne Touba moo nekk Kër Mandoumbe Kër Mandoumbe nag moom ci yoonu Louga dëkk bi ñuy wax Njaañ nag la nit ñi di gën a miin waaye boo fa demee danañ la won dëkk ba benn doomu Serigne Touba moo ko nekk muy Cheikh Mouhamadou Abdoulahi benn doomu Serigne Touba moo nekk Gédé Bousso mooy Soxna May Muunatu Mbàkke moom nag ku yàgg la ndax 1914 la gane jamono moom sëñ Abdou Lahad ñoo maase yaayam tam mi ngi tudd Soxna Sayna bu Mbàkke moom sëñ Mbàkke Kajoor moo ko jur bi mu ganee jamono nag euh, dafa fekkoon sëriñ Tuubaa séddi waay juróom wu jigéen sëñ Mbàkke Buso muy càmmiñam mu dem fa nag gane ji ko mu wàcc fa liggéey ñu yëgal ko sëriñ Tuubaa sëriñ bi wax ne nañ ko denc foofu ci gede ñu denc ko ci biir armeel ya donte barabam nag yombul la gis waaye ci biir armeel yi dañ ko denc ndax dafa yàgg lool muy soxna may ñaari doomi sëriñ Tuubaa yi des muy Asan ak Useynu te ñu bari xamuñ leen moom itam jëlee naa ci kilifa gu baax a baax a baax mu wax ma ne ñu ngi leen denc Fass Touré waaye loolu dafa jiitu géej gi moo tax ñoom itam gis seeni barab yombut waaye foofa lañ nekk lii mooy juróom-benn fukki leeri bu baax ak juróom-benn yi nga xam ne def nañu ay gëstu yu leer a leer a leer tudd seeni tur ba pare gis seeni barab ñetti barab képp lañ ci gisul waaye juróom-benn fukki barab ak ñett yépp ku ko bëgg a gis mën nañ la ko won ñett rek lañ ci gisul muy barabu soxna Seyna Mbàkke teewul nag ñu njort ne ma nga Mbàkke Kajoor barabu sëriñ Asan Mbàkke ak barabu sëriñ Useynu Mbàkke jële nañ tam ci kilifa mu wax ne ñu nga waaye dañoo yàgg moo tax bañ fa demee tam gisuñ leen waaye wér na ne ñoom ci njaboot sëriñ bi lañ bokk ndax waxoon naa léegi bayit wi nga xam ne ci la sëriñ Musaa Ka tudd seen waajur ba pare tuddaale leen di ummi naa mañ tudde faati asanaa maynu useynu dellu may maynu asanaa te soxna faati asan moom moomu nga xam ne mooy seen waajur mooy waajuru sëriñ baaxir buso moom sëriñ bàkki buso te soxna soosee am na ak sëriñ bàkke lu jege fukki bant ci gëstu yi nga xam ne def nañ ko lii nag lu tax ñu def ko mooy sëriñ bi njabootam waruñoo réer war nañoo fexe ba xam leen war nañoo fexe tam ba tur yi ci gën a siiw nga xam ne murit yi am pësteef yépp te bëgg njabootu sëriñ bi ñu bari ci ñoom tudde nañ leen ay doom mel ni cheikh mamadou sa mel ni cheikh mamadou fada mel ni sëriñ saalix ak ñeneen ak ñeneen ci ñi nga xam ne toog nañu xalifa ak seeni jigéen ku mel ni soxna may ku mel ni soxna fadja ñu nga xam ne xam nañ leen bu baax a baax ñi nga xam ne xamuñ leen tam war nañoo fexe ba seeni tur sax ngir sëriñ Tuubaa moom lépp lum laal day jëm kanam rek di bi di naat bëgg guñ bëgg nag ñu fàttaliku doomi borom te xam seeni tur loolu moo tax ñu def téere bi tudde ko yoonu ziyaara barabu doomu borom Tuubaa yi te Sëriñ Tuubaa loolu def ko ñoroon ba tax mu wax ne zur man tuhibbu wa in zatat bika daaru wa xaale min dunihi sahlun wa awhaaru laa yamna annaka buxdun min ziyaaratihi inna al li man yaxwaahu zawaaru kon ki nga bëgg a ziyaare bu ay montagne doxoon sa distance ak moom tam war ngaa fexe ba jiim koo ziyaare moo tax ñu defar téere bi tudde ko yoonu ziyaara barabu doomu borom Tuubaa ñu ngi ñaan na képp ku tegtalu ci téere bi wala kàddu yi ba ziyaare doomi borom tuubaay yi yàlla defal la njéggal te defal ñu ko ci seen barke ak barke moom sëriñ bi am na tam ak ñaan guñ def ci téere bi goo xam ne sëriñ Tuubaa nee képp ku may ñaanal nag ma jàngal ñaan googu kii moom Serigne Touba moo ko waxal boppam. leeral yi nga xam ne moom la ñuy mujj nag ci liggéey bi mooy fukki doomi sëriñ Touba ak juróom-ñeent ñoom ñoo am ay photo kon li des njabootu sëriñ bi ñoom amuñ photo yu ñu leen mën a xàmmee waaye fukk ak juróom-ñeent ci ñoom ñoo am photo mooy Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Fadal Serigne Abdoul Ahad Serigne Abdoul Khader sëriñ Saliou. sëñ baara cheikh mamadul bachir cheikh ibrahim sëñ soaybu sëñ abdou samad sëriñ abdou mbàkke mooy sañ borom dër bi cheikh mamadul murtada mooy fukk ñaar ci góor ñi ñi nga xam ne am nañ foto juróom-ñaar ci jigéen ñi ñoo am foto muy soxna may alkubra soxna moomi soxna mbenn gaabu soxna muslim soxna ami cheikh soxna may suxra soxna asugawaan kon ñooñu ñoo ci am photo bokk yi nag maa ngi ñaan képp koo xam ne jot na audio bi tey soppeeb sëriñ Touba wala muy soppeeb doomi borom Touba yi maa ngi ñaan mu jàllale ko mbokkum taali bi ba mu jot ko ba su fekkee ne munta am téere bi tam ab noppam njabootu Serigne Touba gépp ah saa waay lu nu laaj nag dafa xaw a waa pour nu jàllale ko ñoo ngi nii di ko jàllale waaye nu koy jàllale gëmunu ko de bëgguñu koo dégg ay saaga siy teg kenn xamul nan la nar a demee nag. yaa ngi nuy pour nu jàllale affaire bi a que mbokk yi ak taalibe yi mais taalibe yi bañ nañ de xaw ma a loolu daal war nañ koo lijjanti taalibe gi daanu yeesi laa lay tegal waa pe pe pe pe pe pe gaa yi bañ nañ de gaa yi génnoon nañ avocat du diable yi ñëw taxaw de raas ah, ah, ah. wooy woo sama digganteeg sama sulu billaay wallaahi sama digganteeg Rich mi laay li nga tax gaa yi xam yëngal ndigg de ah waaw yaa moom sa li ngoom pacalal ah waaw paj paj te pacalal ku moom sa li ngoom pacalal paj paj te pacalal yaa moom sa li ngoom pacalal cek cek te pacal waaw moo tax de pacc ma aleel la comme ni ko gaa yi di waxee na pacc kay aleel la eh eh ah waaw saa yi nii saa waay nee na ma jàllale jàllale naa ko musiba rek laa si dëgg c'est pas sûr am na yenn message yi nekkate faut pas les passer ah ñu xit yi sax bañ nañ gis naa si benn commentaire saa waay nee waaye ñu on sa fout ñun Serigne Touba rek ko du jox eh kii daa ko wax ba ne ko wax bu jeex la de waaw waaw ñun daal comme nu ma ko waxee man lan moo ma jaaxal doomi nu nu éparpillé woo nee naa leen tournée sexuelle la waaw waaw moo tax ngeen doon ay sexologue tey ñu xit yëpp ay sexologue leen billaahi yéen su ngeen deful attention ye eh? non nan dem ñu xit yi problème mu taat leen gën a xam ko problème mu alquran ak yaa ñëpp ay sexologue waaw wow taat sa data ndey waaw sa ndey bi kii ñëpp doon nañ ay sexologue waaw du seen foot waaw si seen maam ngeen ko jàngee c'est c'est normal de waaw mbirum taat bi waaw seen maam ngeen kookoo leen gën a dee tournée sexuelle maa leen ko wax fépp la may doom day naa à lui seul il a il kajoor a ko dese woon non mais c'est c'est extraordinaire à lui yàgg naa leen ko nee naa leen allons-y seulement la suñu deful attention population bi Mbàkke Faal bu solo nar a sant gars yi ñoo mën a jur te doomu xaraam yi ba léegi ñoo ngi si wélélélélélé les taata gin waaw waaw moo tax it xoolal jamono Sénégal lan moo ko taalaat encore taat moo tax Adji Sarr ñëw andi fi problème encore de taat nekk ab ñuuxi déggool mooy problème mu taat fu mu nu toppee yàgg na de problème mu taat ba nga am senegal yàgg na de non non non non non taat taata nu yàgg te taata nu sonal taat moo nu sonal taata nu téye Sénégal oh en tout cas ah ah, ah, ah, ah. bi sëñ bi de comme ni ma mën ngeen a sulli doom yi mu suul à travers le monde waaye sept tonnes demi du ngeen ko sulli de ak yooyu nu lakk yooyu nu suul yooyu noonu gars yi dul gis waaye ça va la dictature est dictature religieuse et dictature physique on va abolir au Sénégal dégg nga lu moo tax pendant que les avec man je suis avec ces religieux nous avons une double dictature du double du teg yéen sama day non non non yéen wax leen nit lu fi ne wax leen mi ñi lu fi ne sëriñ bi daa mel moom ba mu tuddee tubaab bi daf kaa defoon ne woon ni que sénégalais yi dafa nekkoon en manque quoi xam nga on avait besoin de peupler le Sénégal wala ki nangam eh, eh. en tout cas rek lu may wax rek lépp ça se ça se reflète de ñun de ñong koy gis ye ñepp doon ngeen ay sexologue ay tata gain waaw ay pour ne pas dire tata gin waaw ay tata gain ngeen quoi ay citoyen de la tatologie waaw waaw yeen mom lu leen wax te mënoo leen say tek tat su da melni ko su guddee de ngeen di dé waaw waaw suñu waxé dara te mënoo tegoo leen ci tat da melni ko du ngeen fanan yeen mom tat mom neex na leen waye ko nu mako waxé rek alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf ba nga xamee ni que ah nee naa leen faites attention technologie wu jamono tout va sortir tout va sortir léegi nak moom line bi ubbeeku na voilà ku bëgg participer rek participer waaw waaw ñun en attendant ñuy feeñal 66 taat yi comme nous ngi koy waxee rek eh waa taatu gee ah, ah ah ah ah ah ah ah waay sama day waaye eh eh déggal Aliou Aliou nee la dina cotiser toj sa lëfal non di ngeen cotiser feeñal ndey seen lëfal non seen lëfal ndey moom mënoo leen koo feeñal mais 33 lëfal ndey sëñ waa ngeen cotiser def feeñal ko moo gën waaw wala nu feeñ wala nu cotiser jëndoon la si mbaam yow de nu cotiser delloo la Christophe moo gën a yomb. day kooku lu mu wax de yow moom du ñuy cotiser delloo la Christophe jëndal la kor ñaaña parce que yow kenn xamul lu ngay lijjanti sa jikko bii nga yor moom ñu les musulmans on n'en veut pas quoi xamuñu lii ñu lii la ñuy lijjanti lii la ñuy xeex si suñu biir quoi yaa ngi comprendre voilà genre de benn bêtise yi nii ñun moom la ñuy lijjanti sa jikko bii nag dañu andil sa kor ñaaña yee si dof yi dina la fa delloo nga dem ils vont te régler quoi Moi, je vais appeler toute la communauté chrétienne et les avertir avec tous ces petits margouillards qui disent que Aïe, tout les religion musulmane du foot, le bordel. On va casser vos gueules un à un. Il n'y a pas de négociation parce que vous voulez commencer à nous emmerder. Yo, mom, c'est affaire yo, mon défar. Hamgo, yo, quand vous bourrez, yo, cotisez outre l'ambam, cours, ben, gazelle, tête, le nez, le Christophe. Ouah, parce que, bon, yo, n'est qu'au so, Julie. Allez, on y allez, bon, yo, n'est doo sax Christophe yow yow christophobie nga yow sa tur dangantaan christophobie yow tuuboo tuubaane woo tubbi woo tubbuwaane woo yow bokkoo fenn yow instant bi lâche lâche nga lâche moo tax instant bi tu tout le monde dans ta même situation ngay génn di wax nu nag comme nu ma ko waxee du ñu nag yow ñu nag doomaraam yi ñu nag sa baay leen sa baay dégg nga sa baay yeeg ñooñ ñooñ leen duñ laa tuubal ñooñ ñooñu andi la ñu nag ñoom la ñooñ sax laa la wax ils déggal ma wax papier ils ne font pas pied suñu ñëwee du ñuy topp te sañu noo ŋaang sañu nu ko déggal ma ñu ñoo ngi xaar sëriñ jiili boo journaliste bi dem na maa ngi koy xaar te ñëw xam ni que tey ko tamit audio bi ne ko nag demal nga góorgóor comme moom daa ne antang day gëstu ji en tant que surtout sëriñ Touba léegi nag gox yaa ngi nii fu nekk foo koy gëstu jee est clair da ngay rek ñu daal di la leeralal da ngay rek ñu daal di la waaw wow eh déggal ma até bu mu neex wax jërëjëfe Serigne Touba jusqu'à preuve du contraire jusqu'au bu ñuy ñew di leral yena bokku bokk déggoo lu ma wax borom 33 jabaré ki 66 gos so démé yow en tant qu'un juif juif sax la gën en tant qu'un naté nga dem nga ne a xam yena a c'est votre problème mais loolu du islam c'est votre problème ñun leral nañu ko légui nekatul islam so démé nga taxaw jërëjëfe borom Touba en tant qu'un païen en tant que athée. C'est bon pour toi. Vive les athées. Vive vous. Voilà. Voilà, eh, Mais nous, ça nous emmerde, ça nous intéresse peu. Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Nous nous nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, point ñuy nous, nous, nous, Nous nous, nous, nous, ñuy Nous c'est votre problème voilà on s'en fout on saa fout mais ñun ñoo ngi leeral loolu noonu di leen naqari ngeen bañ ñu def ko ñoo ngi koy def chaque jour di leeralal ñu bëgg leeral voilà ñu bëgg leerlu te ñu bëgg leerloo ngi leerlu point barre ah wow léegi nag ñuy des mbaam ba tey yéen a xam yéen a xam jërëjëfe leen sax bunu borom Touba ñoo s'en fu ñun on s'en fout nee na leen fii ñun yàlla point yàlla point lu dul yàlla ñun bëgguñu point barre lu yalla yàlla bëggunu lu ngeen xam leneen lu ngeen am su la neexee ngeen jërëjëfe ko jële sa sa sa xar yu ngob yar sa ginnaaw yeewul nga ne mbé wala jërëjëfe ki ya xam wala so déwé sa bop ya koy yóbbu man doo ma point bar mais sama mission xamal nit ñi xam ñong koy wax point bar wala na la nakari di am lu ngeen di wax yeen mëno leen kat sen ndey sax wax dëgg nga ne yéen da ngeen mëna am leen lu ngeen mëna def xit yeen mëno leen sax yeen sen bop yóbbu sen bop fa yalla ngeen am na da ngeen am lu ngeen na def nit mënooloo leen seen bopp an ana nit ku mënulul boppam tuunu ndeyam taxaw dinaa day am lu muy def nit wala di yéen mënooloo leen seen bopp lëfal ndeyam lëfal ndeyam mënooloo leen seen bopp tuunu ndeyam ba pare ngeen toog foofu naan dangeen am lu ngeen mënal nit da ngeen di dëgg seen ndey mënoo leen cottu ndeyam da ñaari salaamaaleykum du ngeen ko def ñaari salaamaaleykum nee naa leen reewande boobu noonu ngeen di wax sa mënoo leen ko da ngeen di jéem tout lu digg la fal du ngeen ko def déggoo leen balaa loolu noonu dikki ngeen génne ndey bunu bun bu bunu nu ngi wax waxee bunu 33 femmes yooyu ngeen di duul ngeen lijjanti ko ñëw teg nu woom ñaa di dinañ def du ngeen def lëfal ndem lëfal ndem dinañ ki du ngeen katta ndem du ngeen tuunu ndem yaa da ngeen di duul comme nu ngeen comme seen maam yooyu doon ñëw teg la nu ñuy duule comme seen waxtaankat yooyu noonu toog di duul nu ñuy duulee Comme nous l'avons dit, nous nous doulons. Non, nous nous doulons. Vous mentez. Vous ne ferez rien du tout. ñaari salaamaaleykum wax rek ngeen fa nekkee. di dëgg seen di duul. Katler leen seen ndey yéen autant que vous êtes. voilà yéen vous n'êtes même pas foutu de de reconnaître le gauche et la droite non, noo wax ngeen te va. di neen di ha di neen ah, ah, ah, ah di neen seen defal ndey du du eh, vous n'allez rien faire vous foutez le camp allez faire foutre en a ku ngeen yaakaar. rien vous n'allez le faire ñaari deureum du ngeen ko def ni dul kan sen way yen kenn du saga sen tata nday neena len sen tata nday kenn du ko saga wala yen data nday ñu len di yobbu nday aljana man non lay waxal neena la man data yoy lay li jënd lolu bu mu len metti joy len yuxu e len ñun sen data nday e bon grawul ay nu ñak jom ngeen sen nday amunu data motax ngeen genn di jënd ay data nday yu jambur yen sen nday ay xour len yor ak koy yéen a ngi comprendre yéen ay ñaari xuur ñoo leen jur ay ay kooy ñoo leen jur moo tax ngeen gën di saaga data ndeyu jàmbur yi xam nga ñun comme mbokk seen kilifa yi ñoom ñoo yor data ndey ñoom ñoo leen di yóbbu àjjana ñun data ndeyu seen ñoo di leen yóbbu na ñun ñoom la ñuy dijjanti bu mu leen naqari voilà képp ku fi toog rek saaga fi ndeyu jàmbur sa ndeyu wasi la nga saaga képp ku fi toog wax dara si ndeyu jàmbur wala ki nangam sa ndeyu wasi la yow nga saaga direct voilà ku nga yaakaar mu yóbbu la àjjana lëfalam nga jël di ko poobar point loolu da nga koy dugal sa bopp ku ngeen fi saaga saaga neen lëfal ndey seeni wasila lëfal ndey ku ngeen yaakaar lëfal ndey seeni sëriñ 33 fois nag lañ koy saaga ñun léegi chiffre 33 lañ koy multiplier voilà bépp kii nu jël ko multiplier ko par 33 saañaat ko si biir 33 yooyu noonu su ko defee ku nekk am left and right déggoo leen ma de saa yu ngeen toogee ku ngeen fi saaga ndeyam rek ñun du ñu saaga seeni ndey seeni ndey amuñu data moo tax ngeen génn di saaga data ndeyu jàmbur yi Wala seni nday ay koy len yor ak yi xour ak ay ngan dambal moo taxit yéen ngeen beuri go jigéen ñun dafa sen data ndeyu comme nu ko waxe kilifa diine ñun mom lañuy kat katt nday parce que su lañ jangalon diine du ngeen genn nday ci mbedd di saga data ndeyu jàmbur waaw fofu lañ kay tega ñoo ñooñu walon len yar faté len yar ñoo ñooñu walon len talal faté len talal ñoo ñooñu walon def ihsan ak iman ci yeen faté def sen liguey ñooñ nag la ñuy fàttali ko nag wiiri wiiri jaari ndaar lu ngeen yaree doomu jàmbur yi ba nu gën di ko def ñeneen dinañ ñëw defaat ko seen biir kër yi duñ koy sotti seen biir kër yi ba mu fees dell waaw duñ ko fay sotti ba mu fees del boobu kay bu mu sonn waaw waw bu leen sax sonn seen seen maam yéen ñëpp seen maam ñuuxit yi nee naa la bépp ñuuxit bu fi yeew commencé di am lu muy expliqué wala di waaj wax wala di am lu muy teg rek ñun dugal nañ ko fois 33 si biir lëfal ndey xolal képp ku mu yaakaar voilà dugal nañ ko fois 33 seen biir lëfal ndey euh, amul sax ma dem te ñëw suñu demee ba ay kattal ay doom xaraamu ndey chrétien waxuma sax la base de chrétien de parce que chrétien dafa yam mais nee naa la doom xaraamu chrétien yi imbécilu chrétien yi les salopards yi nga xam ne que ñoom ba ñuy doon chrétien sa c'était pas des chrétiens purs ay doom xaraam yu katt seen cottu ndey ñoy transhumé ñëw dugg nday si bi religion bi di katlu nday nit ñi suñu démé ba toll non donc wax gi ça ça des problèmes ñun duñ ko sonnal fenn ñooñu dig leen aljana ñoo ñoo duggal affaire yi seen bop di di neen tamaté seen digg la amul sax ma dem te di neen tamaté seen digg la fal nday voilà fofu la yam ak yeen comme dama koy waxee da ngeen di dof dof yeen dofo leen sa da ngeen di rewatal seen nday seen nday yeen amunu ay yeen yow Aliou Ndiaye yow sa nday sa ndey amul data sa ndey amul data moo tax nga ma yow ñaari góor ñoo jur sa ndey yow sa baay sa ndey père porteur la woon yow yow sa ndey yow ñaar ay ay ay ay góor jur yaa ngi comprendre yow suñu LGBT bu ñuy xeex ndey Sénégal sa baay mooy représentation bi parce que yow ay hétéro ay ay nu ay transsexuel ay transsexuel ñoo jur sa ndey doomu transsexuel bu kat sa ndey nga moo tax nga génn léegi nag lu lu sa ndey amul moom ngay dem di yëndu si ndeyu jàmbur yi foo dëgg di saaga daay kii ndey yow sa ndey moo ko amul moo tax voilà sa ndey su amoon data sa ndey su la su la nenoon comme nu nu nenee ñëpp di nga kat sa ndey yem mais comme que nag yow nanu nanu nanu sëñ bi nga dem nga bëgg nga bëgg dem dugg foofu noon en tant que léegi nag yaa xolol kooku noonu di la waaja a nen seen nenu ndey déggoolu moo de seen ganaaru baay seen lëfalu bàjjen déggoolu moo ah waaw man kay nee naa maanaam ni ko murit yi ñoo nangoo noo dem ja jëli ji ay chrétien andi leen si diine bi nuy konkonl di neen saaga ndey seeni sëriñ bu leen sonde ba bis bu nuy ñëw redressé leen dina leen redressé yow wax naa ko nee naa la fii ngay jaar yaru wala fii ngay jaar yow gars yi dina la woo dugal dara sa bopp parce que yow da nga réer waaw so lii ngay def di nga kat sa ndey delluwaat si chrétiens yi dem dellu ji ko foofu voilà di nga kat sa ndey dem defe ji ko yi foofu noonu nu xool ndax dina jàll soo demee si chrétiens yi sax def ko fa nu doxaan sa ndey voilà ñun nak nga bëgg ñëw yeblu ñëw andi sa kii bi fii di neen doxaan sa tuunu ndey voilà sa réewande bi ngay def ni da ngay dem nga def ko ci bi chrétien yi pas fii voilà pas fii faut aller retourner d'où tu viens dama def ko sa gàlle ndey da ngay dem def ko sa sa reewantalu rek reewoo imbécile non yow Patrice Patrice Lumumba déglul booy bi instant yi dafa gëlëm day reewantalu reewul instant yi day xam day reewantalu reewul sax day koo koolu mais ñu ñoo leen gën a kon ñoo leen gën a imbécile laay ñu ubbeeku na kuy jël rek kenn ko nee naa leen tey moom c'est les jours yi nga xam ni ko mooy loolu noonu je pars en couille je pars en catastrophe booy yi nii mooy loolu comme ni ma ko waxee. comme comme moom mooy jiitu moom mooy représentant wu euh, comme nu nga waxee rek moo ñëw moo bëgg taxaw représentant wu ñuuxiti dinaa katta nday ñuuxiti ba ñuuxiti dinañ ko wër moom ñëw ne ko génnal si léenee nga dugg parce que si lu nga dugg xamoo parce que loolu laa lay wax soo demee nga jël benn mbaam mu ñëw foog ni ko mooy lool maa la gën a katta am voilà man xam nga du maa ñaanoon ay tab man na leen nag léegi dama leen siy fekk si voilà léegi ñu ma ñaanoon ñëpp ki gars di wax man maa koy jëlaat aj ko une semaine katt seen digg la fande wala bënn seen bunu baay maa leen ko wax maanaam ni que nag léegi murit yooyu comme la ko waxee kilifa yeeg murit yooyu na ngi toog di seetaan dinaa kattan nday Serigne Touba kattan nday xolal ñu ngi koy waxti Mountakha kattan nday Bass kattan nday Kara kattan nday Baye Abdou Karim ba déggul ma ñoom ñëpp di leen wàcc ñëw jël si parce que benn chrétien du fi wàcc kattalu lu ndey déggoo ma kattalu ndey nit di ñuy toj seen cottu ndey un à un. Wala da ngeen am lu ngeen di wax katt leen sa nday ngeen dem andi di réponse yi ngeen di ñëw tontu nit ñi da ngeen di génn di jaay reewantalu ñu leen gëna a kattandeem reewa fi ne toj seen cottu nday la def lu leer la leen di tegal seen tuunu nday ku fi wota rek na génne réponse yi allo allo Moussa Moussa kamara waaw maa lay nuyu di la ziar bu baax. delloo ziar bu baax a baax. waaye ci Joseph Mendy. ok Joseph ziar na la. waaye maa lay nuyu di la ziar bu baax. ok bismillah yaa si biir de. waaye mais yow ñoo ngi rafetlu xam rek mais mais yeneen yeneen kii bu si gàññu danay déglu chaque mhm. bu dem ba eh, bu dem ba di faux profil yi te c'est un homme yaa ngi dégg. yow mhm. noonu très intelligent moi aussi je vous respecte beaucoup. yaa mhm. ngi dégg. Mhm. loolu loolu moo tax ma lay mais xam nga sa xam nga ci xam nga da ngay da te respecte tu mon grand quoi. en tant que grand ay petit frère yaa ngi dégg. loolu moo tax ma woo la nii xam naa dégg ya xam nga man nu ngay waxee ak man ni je comprends déjà lan moo tax ngay wax ak fan ngay waxee fu nga bëgg dem parce que je suis doté au moins d'un esprit xamna fu nga dem mais comme nu ma ko amna ñu nekk si réseaux sociaux bi di seetaan amna ay mbam ya ngi comprendre y'a beaucoup daan là quoi ah. donc suma sañon sañoon bul ma si rus mm-hmm. bul ma si sét sois transparent et fais sortir ce que tu as dans le cœur et ce que tu as à dire pour que ça soit clair sur la tête de tout le monde et que comme ça nous débattons moi si suis en Europe tu vois. Mm-hmm. mais bu du xam nga am na yoo xam ne bu si bu dem di xam nga di dem di dem feneen dem feneen dem feneen bi yow sàmm mais bu si dugal en tant que frère ndax dama déglu moo tax ma woo la nii léegi ne yow catholique yi di chrétien yi demoon nga xam naa non mm-hmm. en tant que frère quoi. Mm-hmm. yaa ngi dégg. yaa ngi dégg non. non ñoo ngi lay waxal la moo tax la. soo wootee rek damay jaar si biti bul jël bul jël gueule to eh, combat mais avec des faux profils ñu dugg saagal ko ñu wax la leen bu si il faut pas se mêler. Mm-hmm. au frère. Mm-hmm. aussi. waaw mm-hmm. ah, bul bul bul xam nga bul di globaliser quoi. faux profil da ngay dem ne kii faux profil nga xam ne jikko nit la am moi je te respecte en tant que frère. omdana ngono lollo ko amota mo dusumano wola mo xamma lool rek denga ya comme nu mu ko waxee rek intervention am na solo mooy comme nu ma gis nga yii ni dafay dee di ko def amul tuunu digg la fal ndeyam yaay comprendre sama wax ku ko mënul katta wala nga dégg fu may waxee nga for wax bi nga yóbbu ko muy wëlis wala nga transformé wax bi yóbbu ko feneen sa caapa nday yaa ko koy wax ak keneen ay ay doon give a fuck moomu man nday gémmiñu kenn ba di ko wax loolu leneen li am ni sama gémmiñ maa ko moom nag lu ma siy wax moo ngi clair ku ko mënul kattandeyam dégloo noonu mu kattandeyam yéen a ngi comprendre lu ma wax dafa clair ba ma ko fi dalee di répété di ko répété di répété waat di répété waat mooy loolu léegi nag dooma xaraam bu toog am compréhension bëgg fay nekk jaaxaan di saw you are fucking shit I don't a fuck yàgg naa fee ne chrétien yi ñoo ngi dund ak moom athée yi ñoo ngi dund ak ñoom eh, saltige yeeg nu ma koy wax oh, Sénégal c'est un pays laïque bu nu wala yemale tout le monde ba may wax nee naa chrétien yëpp melu noonu parce que chrétien yi bañ nañ ba Sénégal soo toogee doo leen si dégg mais nag cette race su chrétien yooyu di naan du ñuy tuub di ñëw nekk ay musulman seen dooma xaraame yooyu noonu leen nangulul si chrétien su bëri ñëw si musulman yi nañ ko bàyyi foofu du ko andil. du nu nekk ndey ay doomu haram si chrétien yi nu kat sa ndey nu ñëw na du ñuy nekk ay jullit ba pare bëgg a ñëw kattalu ndey yoonu jullit du ñuy kat sa ndey su nu amee lu ñuy def nu katta ndeyam dellu fu nu jógee dem defu ji ko que ça soit clair wax gi nag ku ko jël yóbbu ko feneen sa digg lëfal ndey je m'en fous c'est parce que ñun gisoo leen benn musulman bu tubbi dem nekk chrétien dem nekk foofu doon di foot le bordel amul gisole leen musulman buy tok di dem di raconter de la merde seni affaire bañ ba insa dum ko jël représenter ko bolé ko ci alcorane respecté ko donc nak yeen su ngeen demee ba ngeen am nday ay dooma xaraam yuy katta ndayam di tuub di toj di toj toj waay di katlu nday nit ñi ñuy kat sa nday lan lan wax wax di day clair légui nak wax gi ku ko jël nak dekkal ko fenen nan da nga généraliser wala bëgg tepp pour am loy expliquer so ñowé da ngay won sa position nga wax ko Vous allez comprendre. C'est vos tout-ben là. Vos petits dits, je ne Christophe, ay Ndiago ou Seignbeck, ay affaire de C'est imbécile, yoy la ni wahal. C'est fils de pute. Yon jikko yu bon, yoy nous neke won fof. Su neke du nuy tout. naan soi-disant tuub ñëw si yoonu islam bëgg ko fay andi du ñuy kat seen ndey y' a pas de demi mesure amul jadd amul jaddaat tuunu ndeyam y' pas de respect dans le respect commence par soi-même. fii ay na sa respecte pas ñu bëgg ñëw manqué loo waay do ñàkk loo fayda yoonu islam ñun du ñuy toj seen cottu ndey voilà parce que nous d'abord en tant que musulmans suñu biir on a des problèmes yu ñuy régler ñu ñuy wax nag ay dooma xaraam jóge for seen merde ñëw bëgg nu koo andi kat seen ndey la ñuy def loolu na clair seen ndong yooyu donc nag ça ne vaut pas la jël wax gi ba koo jël di ko dëbb-dëbbal Amou ah ay non on n'a aucun problème avec les chrétiens Nous, nous Sénégal nous ngi en harmonie mais nous avons des problèmes maintenant avec ces toubènes on commence à avoir des problèmes avec ces Là, L'on la leen wax mais ay qui qui qui qui si vous avez quelque chose qui vous fait mal, vous n'avez qu'à regarder vos jeunes qui sont entrés dans l'autre religion. Il y a du yóbbu. loolu parce que aussi à un moment trop c'est trop. trop c'est trop. trop c'est trop. yeah Nous, nous fay nek di sur les problème am suñuy poubi bop. am ay ay ay nit n'avons ay di di bokkaale yàlla di bokkaale yoonu islam nekk fi di duul ñuy lijjanti lool léegi nu ne léegi ay soi-disant tuubeen wala ay chrétien yu ñoo génn fee ñoom ñooy ñuy kat sa ndey déggoon ma ñuy doxaan sa ndey wax gi foog mu clair ñoom seeni baay ñu leen jiital naan ay cheikh leen ak aki ñemew noo wax c'est léegi ay chrétien ñooy génn di kat sa ndey ñu kat sa ndey ça c'est clair léegi nak ngeen nan ay affaire de faux profil ay affaire de ki ki nangam su ngeen ñaké fayde aussi ba nu dem lu faux profil la leen mooy loolu voilà man c'est que yeen xamoo leen Moussa sax si lu muy dox ak si nu muy doxale ak nu muy teg yaa comprendre da ngeen ah non faux profil ak ki nangam on s'en fout fi ku fi lu sa bop ba nu dem nu bolé la ci affaire de faux profil yi di la muuroo lu nga liggéey la lu nga def lu tax nit ñi nu romb ñep profilo wu nu faux profilo wu nu kenn yow leen ci yeb ñu ñëw foo profiloo la pour dem def ji musiba génn nga ñëw lijjanti ko c'est ku la sàqetoo danga nga koy lijjanti voilà ku génn sàqetoo la jël sa identité sàqetoo ko di si def leneen da ngay dem lijjanti ko mais doo toog noppi naan ay faux profil wala ay kii non non kat seen ndey point barre ku am luy wax rek wala nga am looy siisu wala nga am looy lijjanti wax gaa ngi nii nu tegalaatal leen ko seen xol di bon. lii mooy doomi borom Touba kenn ku nekk fañ ko denc. juróomi doomi Serigne tubaab ñoo nekk ci jumaa ji cheikh Mouhamadul Moustapha cheikh Mouhamadul Fadal cheikh Abdoul Khader Mbacke cheikh Salih Mbacke cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke. benn doomu Serigne Touba moo nekk Daaray Kaamil cheikh Abdoul Ahad benn doomu Borom Touba moo nekk ci buntu armel yi soxna May Mbacke Zuhra mooy soxna May Laylatul Xadar benn doomu Serigne Touba moo nekk Daarul Minan muy cheikh Mouhamadul Bachir. benn doomu Serigne Touba moo nekk pencum Serigne bu muy Cheikh Souhaïbou Mbacké fukki doomi Serigne Touba ak juróom-ñeent ñoo nekk ci biir armeel yi nga xam ne ñoo nekk ci penku jumaa ji. ñun lii mooy suñu problème voilà ku ko mënul lijjanti ku si amul lay wax nga kat sa ndey ku génn di ko taxaw ku génn di am lay wax yaag sa bàjjen yaag say xolo képp koo yaakaar seen jaafu maam yaa ngi dégg ñun lii ay wax gi Serigne Touba nag su nekkee dëgg la moo jur doom yëpp. su nekké moy takkon jabar yëpp si yóbboo lépp lu mu bindon nako ko boxoñ sànni point bar loolu ma len ko wax amul négocier légui looloo fi jeex comme que da ngeen di kat négocier mo fi jeex Serigne Touba su nekké mo jur dom yoy non hein mo kat jigen yoy non lepp lu mu bind lu mu rafet rafet rafet rafet rafet na boxoñ sandi parce que topul si lu yalla wax deful digalu yalla andu si lu yalla wax comme le lëfal ndem yaay comprendre mono na da nga deg yalla am yalla ba pare di def lu la doxalal. Moussa Camara. doxalal. waaw teg ko da ngay kaas rek coow rek yaa wax rek la ngay wax. ma ne la sa tuunu nday. yaa ngi dégg sa lëfal nday. sa jom nday saa yoo yeewoo doo voilà boobu leen di may ñëwaat leen. da ngeen foo mën ngeen def yooyu doon kii nangam dugg ñëw. da di dugg ma kat seen nday tamit boo leen jaay leen bu doomu du ma décroché sa nday. katuma sa nday décroché la maa leen gën a kat sa ndeyam da ngeen bëgg a foo. vous voulez faire les jeux doomu maa leen gën a ndey doomu aadama ma sa katt naa sa ba pare damal nga tëdd nelaw point barre ñu def yu doomu xaraam yi kaay leen seen digg lëfal ndey seen lëfal ndey seen tuunu baay ngeen di am lu ngeen di wax nee naa leen lu dul saaga mënoo leen ko du dee du fi génnee leneen du ko fi teg lu dul saaga mënoo leen ku léegi ku fiy dugg woote balaa ngaa développé ma saaga sa ndey bloqué la tamit booboo gën a dee maanaam ni koy affaire de yuuxu ba nga ay saaga konkon ñëw fi lu dul saaga mënoo leen ku fi ñëw ma saaga sa ndey bloqué sa ndey booboo gën a gaaw maa leen gën a kon maa leen gën a kon gën leen teppeeku xam nga xamoo leen buur saay na buur dina teppi seen cottu ndey nag maa leen ko wax su nekkee Serigne Touba moo laal 33 famille moo jur doomoom yëpp Mordou domi, yop, tegolou nu wax wax ki dinañ ko lepp lu bind lu mu rafet rafet rafet na voilà lepp lu bind lu rafet ay voilà l'olay wax point barre. le lëfal nday ah wow. tapeti niel ni email lay mel da ngeen di daw réponse daw question yena ay tapet tapet lay mel su de da ngeen da di assumer question yi affronter la réponse ñemee leen ko tapet yu kat seen ndey nu tegal leen question ngeen tëb di pat di saaga di tëb ngeen fool eh, pour yéen saaga mooy guerrier saaga pour yéen guerrier taxaw ay ah, ah, eh, sa ndey sa loolu pour yéen mooy guerrier laay laay ah, comme de Sénégal jàppale ñëpp ay guerrier leen su nekkee saaga mooy guerrier jàppaleen ni que senegal ñëpp ay guerrier leen Sénégal amul tapet ngir ñëpp a mën saaga seen ndey déggoo lu ma la wax seen ngeen naan ma ay affaire ay way su nekké ay gër guerrier ngeen ñamé leen wax gi da ngeen di ñamé question bi comme kon tuuti may allo bismillah salaamaaleykum sama sëriñ bi wa def salam cheikh siyaar naa la waaw delloo siyaar Moussa si noon ça va sant alhamdulilah ñu ngi rafetlu sa waxtaan bi wa vraiment mais nak man mam limay wax da sëriñ Dubaay man gëmuma ne moom mo tak jar 33 femmes yi loolu ay ay wax la rek daal man loolu laa gëm daal. ah xam nga lu nga wax nii lu nga wax nii neex na loolu mooy waxtaan mooy nit day wax teg nit wax daa ne gëmul leneen nu jël leneen nu teg ko nu waxtaanu gërnees wax ki mu daal di avance comme ça mu mën a am sottantal comme nu nga koy waxee xam nga man mm-hmm. dox naa génnee naa la soxna yi génnee naa la doom yi xam nga tegoon ah. liste di doom yi wax la ban année leen judd ban année leen dee mm-hmm. bon gars yi daal di bañ tey nag andil naa la fan la leen suul ku si nekk. yaa ngi dégg loolu dëgg la dëgg léegi nag tey yow soo demee comme nu ma waxee xam nga àdduna moom nii la demee rek. dialogue la débat da ngay jàngalee nga la nga doj si lu bees nga dem nga gëstu si nga xool nga ñëw nga teg. demal nga neenu kat ah man xam nga d'accord kat moo takk 33 femmes yi mais kat lii ak lii ak lii ñii ñooy soxna ma jàpp yow si sa premier réponse ma dem uti ji keneen yaa ngi comprend mais xam nga la moy gëna a bon moy nga ñëw na ma d'accord si mais tamit nak mëno ma jox ci luma japp jàpp. dëgg la mais man man man franchement di ah. hmm euh duma duma du murid laa su fekkee ci cheikh Touba limu mu mais nag. Mm-hmm. li ñuy woote si murid bi man duma mourid bobu boobu daal wax dëgg man lima ma gëm ne Serigne Touba parce que amna ko mo ma waxoon Touba la. Mm-hmm. ñu wérante ci. ba mu ne man demal gëstu ji ma ne ko léegi su fekkee Sëriñ Tuubaa lépp lu ma wax da koo bind ma gëstu gëstu ba léegi nii musuma gis fu Sëriñ Tuubaa la hmm. kon su fekkee loolu daal gars li ñuy wax peut-être dañuy wax rek pour wax wala pour neexal waxtaan jotaay rek wala ñu bind pour mais Sëriñ Tuubaa bindu loolu hmm. Sëriñ Tuubaa musul am 33 femmes loolu naa ko waat parce que Serigne Touba ku gis ku gisu mbiram ku jàng mbiram ku jàng jàngale jàngale Serigne Touba li mu bind di nga xam ne Serigne Touba yonent bi fi mu tegoon tànkam foofu la teg tànkam hmm. l'islam la doon jàngale alquran ak sunna Muhammad loolu la ñu dalal léegi nag ñu nekk si ginnaaw di mbuuboo ay murit di wut di ci wut soo nee nekk si ginnaawam il faut que ñu nekk si ginnaaw ñan ñi mbuuboo maanaam xam nga ko laa bëgg mm-hmm. euh, ay murit ñi mbuuboo murit te duñu ay murit murit di wut di ci wut dépense dépense ñoom lay wax mais waxuma maanaam comme comme sëriñ bi ma la wax yu ne woon keroog man ak imam bi de li muy jàngale sëriñ Tuubaa lii lay jàngale à part nag keneen ku mu mënta wax daal lu dul lislaam eh, lu dul alxuraan ak sunna Muhammad nekk si yoonu murid man loolu laa gëm daal. ok léegi man benn point rek laa lay defaral. benn apostrophe pour wax gi bañ a bëri quoi après léegi yow nga dem nga gëstu leneen parce que lii man daf ma neex lii waxtaan la léegi. Mhm. du yéen d'accord ngeen ni que doomu Serigne Touba yeeg sëppi Serigne Touba yi ñooy Serigne Touba no du loolu ngeen d'accord yéen. waaw. ah ah. du ñoom ñooy

wala mu gis yonent mu romb ko dem si Serigne Touba léegi yow lool noo koy jàngatee. parce que yow soo nee. loolu loolu loolu xam nga laa ko jàngatee Moussa. Uh-huh. kooku noonu parce que nit nit dama la jox benn exemple rek si Nuhu Nuhu dafa amoon doom boo xamante ne jabaram ak doomam bi ñoom weddi woon nañu yàlla te pourtant te pourtant doomu doomu Nuhu boobu Nuhu yonente la. kon mën nit kii ah. kii wax loolu kooku dafa am lu ko neex rek mais Serigne Touba ah, Serigne Touba tey bu léegi léegi yow xam nga yow loo def nii moom mooy la waaw doomu mën na nekk doomu Serigne Touba la nii mais jëlul jikko Serigne Touba man foofu la wal noo noo non léegi day paradoxal day paradoxal ah. xam nga lu tax waaw xam nga lu tax su ngeen nee doom bi mooy baay bi rek doom bi mooy baay bi quoi léegi nag su demee ba def leen mënoo see xool yow sa bopp nga analyser parce que yow sa bëgg-bëgg so sañoon du ko def nga daal dina no yorul diko doom bi du ki mais non moy baay bi yéen wax dès le départ fallait y penser dès le départ. parce que su defee lu neex nga daal dina ne jël na jikko baay bi mais pourquoi su defee benen nga daal diko ko yow yaay kan ba yow ya wala juger légui ban jikko nga wala dëkkal ci bayam ak ban jikko nga walul dëkkal ci bayam lan mo wala jox droit bob man daal xam nga lan laa ko mën a jàngate parce que nit mën a jàng dara bañ a koo jëfee man loolu rek laa ko mën a mën na xëy na moom ki wax loolu jàng na xam na li li yàlla wax xam na li Serigne Touba wax mais jëfewu ko wax leneen lu nag lu neex ba bakkanam man foofu laa koy jàppee rek ah comme boog wasalaam léegi yow nag gis nga loolu noonu nga wax à partir si neexaayu bakkan boobu léegi yow commencé à partir yow foofu noonu nag nga daal di dem gëstu neexaayi sa neexaayu ba bakken soo demee ba nga topp dara nga wax ko si neexaayu bakken lan la si yàlla wax soo toppee sa bakkan daal maanaam léegi yow si lan nga doon léegi yow soo demee nga xool si loolu noonu léegi mu daal di topp parce que dafa complexe mais comme nu ma ko waxee rek lii nii moom la ñuy sàkku chaque jour su yàggee yow di nga comprendre man dinaa comprendre amaana keneen dina comprendre waaye saaga si moom su fi yegsee ma teg ko si xolal maamu Serigne Touba booboo gën a garaaw waaw loolu dëgg la mais loolu yëpp jar jaru ko waxtaan rek ku nu wootee saaga nag wartu parce que l'islam moom dafa dafa tere saaga borom baax yi tere nañu saaga saaga moom vraiment àndul ak respect man moom ak vraiment du ma saaga du ma saaga kenn quoi moo tax ma wax ak yow. parce que man xam naa voilà voilà man waaw man xam naa ci li wax loolu moo tax ma woo la ma ne la waaw li ngay wax nii ànd naa ci ci beneen côté bi mais saagay moom laa àndul. saa waay maa ko mënoo wax heure heure heure te saaga du si am waxtu kii coow du si am. parce que lu tax lu ma dugg see lu ma waxee moo tax waxtaan am na. lii mooy waxtaan man. waaw genre yu mel ni yow laay waxtaanal journée gi yëpp. waaw l'islam l'islam yonente bi si boppam dafa ne da leen sàkku xam-xam mm-hmm. yàlla si boppam dafa ne yonente bi na jàng d'abord lépp jàng léegi man nag ñuy demee seen bànneexu bàkkan wala nit ñi di leen ci pour tàgg nit ñi am lu leen neex ci ci ñu ñuy ñu ñuy defaree seen dépense wala ñu seen dépense mm-hmm. ça concerne que ñoom mais képp ku bëgg a jàng l'islam mm-hmm. wala pour que dugg ci mouridisme boo xamante ne muri non non saa waay ngir yàlla ngir yàlla soo bëggee nu déggu rek day soit sooy wax bul ma jaxaseel danga naan képp ku bëgg mouridisme wala nga bëgg sax mais bul ma boolee ñaari soo ma boolelee ñaari damay indiwaat yeneen laajte yoo xam ne ni que après daf lay sonal parce que su nekkee islam islaam daa am lu mu wax islam lu muy wax ba muy teg loi am di teg ko dam woo boolewul murit xalaatul mu musul xam ni que murit dina exister yaa ngi comprendre donc nag mënoo jël nag ay waxu islam bëgg koo jël toftantal ko si murit non non non moo tax man toujours su suñu àggee ba foofu mën naa leen boo léegi nan laajte si lii ne laaj léegi nag si murit boobu la ngeen di wax xam nga soo si wax nga yemale ko foofu nu jéem a xool nan leen koy waxtaan mais man je refuse catégoriquement nit kuy wax bëgg a jël wax di ko toftantal islam xam nga islam ak ak murit bokkul bokkunu air bokkunu jamono bokkunu ñu ko xeex bokkunu ñu ko wax te bañ koy wax ñoom ba ñuy xeex islam musuñu woon nee naal ay sët sëtaatu yonent bi musuñu woon xam ni que murit dina exister donc nag nen yoon pourtant pourtant Moussa ki sànci mouridisme kooku de ku topp ku topp tànkam daal mu ngi yaa ngi ci lislaam xaw ma nag keneen ku ku topp lu lu dul kooku sànci daal nekkoo ci lislaam man ma loolu laa mën a wax parce que man moom gëstu naa ci Serigne Touba li mu wax parce que man nee naa la man dèjà man du ma murid mais gëstu naa ba xam ne Serigne Touba nitu yàlla la ku topp ci tànkam ci topp ci ndigalam di nga bàyyi tere yi jafe-jafe yi topp jafe yi te eh, topp topp topp ndigal te lépp loo loo ndigal si julli ak julli ak woor di nga aji màkka di nga def lépp wax la dara nag bii nag maa la ko may si diggante doomu aadama ak doomu aadama xam nga waaw Sëriñ Tuubaa lu mu nekkee doomu yàlla wala nitu yàlla wala xaw ma la yow tamit hmm. noonu nga nekkee nitu yàlla fii ñun ñëpp ay nitu yàlla la waaw loolu dëgg la non non taawal quoi xam nga wax gi faut pas amener ça sur lu extraordinaire xam nga dangaa wax ba nga kii du ñuy tàggatoo mu tàggatoo fii parce que hmm. nit nu ñëpp lu war sëriñ Touba war war si yonent gi moo nu war ñun ñëpp ñun ñëpp ay doomu yàlla ay nitu yàlla leen jaamu moo nu war daa ngi dégg yonent gi si boppam sallallahu alayhi wa moom mii di gën si mbindéef du dugal kenn na te mënul dugal kenn na ba muy ñëw fii nii daf noo wan nu ñuy jaamoo yàlla nu nuy amee yàlla am yoonu fa yàlla mu daal di def bàyyi nag le reste nag à notre main nu war see góorgóorlu loolu rek mooy wane ni que ñun ñëpp nu sommes les enfants de Dieu ay doomu yàlla leen quoi yaa ngi comprendre léegi nag am ab yell fa yàlla nun ni kooku noonu def ba am yeel fa yàlla wala am fay fa yàlla yow looy xaar yow ba ut yoon boobu noonu jarul di toog di tàccu wala di toog di ko wayal non wan nan la yoon nu nu def ba àgg am yeel yow looy xaar nekk si yaa ngi comprendre loolu moom mooy wax gi léegi nag nekk fii nag bëgg a jël nit teg ko si kaw nit bàyyi demal nga fekk def ko sa yaay fi amul kenn ko xam mo nek supérieur kenen parce que lutax ay nit kessalen du ñuy ñam dundu ñam feebar xey dé yaa ngi comprendre ñu am nday ak bay hein? ñu am ay coonowu aduna comme tout le monde ñuy dugg douce di def leneen donc nous sommes tous égaux lolu mom moy wax ki quoi point foofu foofu suñ ko commencé dinañ àgg fu sori mais tant que ñoo ngi jël ay demi yàlla wala ay demi affaire teg ko ba ko mel ne lu extraordinaire teg ko du dara yàlla moo extraordinaire kéemaanu yàlla xoolal asamaan si xoolal picc yi di si naaw xoolal garab beeg gàncax gi ni ko yàlla def xoolal couleur si loolay kéemaan yaa ngi comprendre donc daal man loolu rek laay am point bu ma doon teg du si wax di si ñaax quoi léegi sëriñ si comme nu nga ko waxee fu nga ko bëgg teg mooy wasila wasila comme man nu ma ko jàppee mooy nit ku lay xamal sa diine nit koo xam ne am na si lu mu la ëppalee lu mu la sut mën na laa ñaax mën na laa gàggante gidd te loolu noonu duñ ko donn loolu noonu du su nit lañ koy xool sa rakk mën naa doon sa wasila sa xarit mën naa doon sa wasila ku la jege koo xam ne daal moo la ëpp àlliwa mën naa doon tey sa wasila point barre léegi daal nu def noonu xam nga maa ngi lay ñaanal bu baax comme ça ñeneen ñi mën a ñëw dugg xam nga te di la jéggalu su wax bi xawee dëgër di la ñaanal yaa ak sa njaboot ak sa liggéey lépp yal na leen yàlla aar yal na la yàlla sàmm xam nga te yal na la yàlla defal lépp nga bëgg si sa àdduna quoi mais kontaan naa si amee temps lii bu tamit même à part live bi xam nga del woote ni waxtaan lii moom mooy jullit ak jullit. waa allo dinaa xool benn jour boo xamante ne man tam dinaa dem gën a gëstuwaat après nag ñu gën a leeral ci Serigne Touba ba gars yi ñu xam ne ni ñi intérêt intérêt bopp ñu nit ñi xam ne ni hmm. Serigne Touba daal bu mu mën a wax ne daal al islam la doon jàngale man loolu lii mooy waxtaan lii mooy waxtaan yal na la yàlla fay ok jërëjëf waa jërëjëf yow tam yal na la yàlla aar waa amin amin amal jàmm waaw nii lay demee de waaw

wa yow mam sant di waxtu do déglu soo saagee ba pare duñu sa bëgg fe waa léegi déglu ma waa naa yow kay ki yaa laa yaa di jaay roy la di kii ma leen gëna a xam na na man je suis un con bo xam dama leen di étudier moo tax gars yi yow nga xam sénégalais man na leen non je fais souvent des choses yo xam c'est pour attendre mes réponses je te dis les gars je fais mes mes petites expériences de xool mais gars da nga leen di ubbil rek xam nga baye leen kaay leen salaam rek gars xol xoolal waaye commencé xaabaabal xamuñu ganale da nga leen di ganalé ak nu xaabaabal moom mo jam xam nga jam motax ma leen gëna a con fii ku fi dugg bala nga pip pi ma saga sa bloqué sa ndey ba paré jëlat encore ma mom sama plateforme jakar lok yow saga sa tuunu nday ba nga xamni ko lepp deug dëgg la avancé dem saga tuunu nday ku ngay baña deug ñew ñëw toog xolloo si mën parce que réewande tamit réewande koy fajte réewande réewande koy faje ko ko koy faj nek leen nit ngeen ne du ngeen nek nit nek leen nit ngeen ne du ngeen nek nit doxal leen salaamaaleykum. Eh, maaleykum salaam jotal booy. waaw mais le grand ngi noonu. waaye sa grand bi nekkul normal la. doxalal le grand doxalal. tey moom sa booy dafa. tànn voilà ok. non tey dañu non dañu war a tànn jëpp. doxalal grand doxalal rek ba kenn la. waaw ma mhm. allahu waaxidun. suma allahu waaxidun. muhammad waaxidun. رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد waaw waaw xoolal man tey damay damaa jógee benn dëkk quoi tamu bi bis di taw bi ñu di xool dëkku tubaab yi mën a xool est-ce que xool nii amuñu or amuñu pétrole amuñu jamaa amuñu dara mais seen moyen la ñuy utiliser infrastructure bi yow bis bi nga day mel ni avion saay par rasmla ma toog waxoon ma ne xoolal ñun Sénégal ba mu de mille neuf cent soixante ba léegi ñun Ndakaaru rek la mm-hmm. loolu moo lay won na si Ndakaar waa waa ñi ñuy woowee boy temps yi Ndakaar ak fils de bourgeois ñooñu dañoo tar benn mm-hmm. ci côté boobu quoi waaw parce que yow yow plateau ngay dëkk gis ku dëkk Pikine wala fële yëmbal nga koy saboté quoi wala nga koy xeeb quoi foofu nga xam ne esprit sénégalais ñun du ñu dem quoi. Mm-hmm. benn jour da nga ne Amérique bu ñu waa Amérique yëpp bu ñu demoon Sénégal. Mm-hmm. Sénégal ñu jëlee leen foofu yëpp Sénégal seize yooyu d'habitants yóbbu leen Amérique xoolal barke Rasulullaay un mois ñu yàq ndey Amérique après bu waa sex soit waa yu quoi parce que éducation bi tamit dafa dafa bokk Sénégal pour mu jag il faut ñu jël Sénégal bu ne ñu jox la formation gu ñëw Europe nga def benn un an après nga delluwaat waaw léegi noonu lañ koy mën a tabax tubaab gëmuñu yàlla gëmuñu yonente bi gëmuñu affaire sëriñ gëmuñu affaire tarixa te yow ñooñu di wax ne ñoom ngeen ñoom ngeen gëm ñoo ñoo ñooy ay kilifa diine ñoom xoolal li tubaab bi utiliser li tubaab bi liggéey ñoom ci la ñuy utiliser pour mun a jokkoo ñooy amuñu xam-xam tubaab yi ñoo am xam-xam. waaw waaw ñoo defar technologie sëriñ boobu ngay wax tubaab bi moo defar avion sëriñ bu ñu xaaree sëriñ bi tu sëriñ bi du defar avion. mukk sëriñ baa ngi nii tey su bëggee communiquer su bëggee wax dara day jël téléphone woote. moo foofu laay iPhone X la di photo di snap di woote. voilà xoolal ah, yow Sénégal ah, ngay nekk di wax naan tubaab bi boo ñëwee tubaab bi ba xool Europe du ko liggéey da ngay naan xoolool ñun du ñu dara ñun wax bu bëri rek xoolal ndax région yi nekk Sénégal yëpp Dakar moo ci gën a tuuti longueur moo ci gën a tuuti largeur xoolal mais ñu ko pavé. ya dëkk balaa nga koy defar da def sa canalisation dëkk bi yëpp nga pavé lool Europe loolu mooy Europe. waaw Sénégal c'est trop tard. moo tax xam nga loolu moo tax ma naan jamono jii nii Sénégal pour nu defar ko foog nu rajaxe ko foog nu tas ko zéro. commencé waa parce que lu tax loolu Moussa Ndakaaru région de Dakar ba mu daj. benn xool benn benn région la bu ndaw boo xam ne nii. Mm-hmm. dëkk tubaab benn xool fi nga fi gën a arrière moo moo gën a canaliser Dakar moo gën a set. respecté code de la route. te tey c'est trop tard pour nga canaliser Dakar Dakar pour nga canaliser ko jamono jii c'est trop tard parce que fépp lañ tabax. te canalisation si suuf jaar. eh kooku xoolal wax leen ko ministre de l'habitat et de l'économie et de l'habitation xam luñ koy waxee mais dama ne. dëkk mënul développer te canaliser wuñ ko génne tali yi génne pavage yi nit ñi mën a dund naaj quoi. tubaab yi xoolal tubaab amuñu or amuñu pétrole amuñu dara mais xoolal arjana fii boo koy wut Europe la nekk. Hmm. même boo amul xaalis sax dañuy dund naaj quoi feebar faju xam nga après da xam ne tubaab yi ñii ay nit lañu quoi. te yow yow mi ñuy faj yow dañuy xam ne yow Mouhamad nga gëm parce sa kayit la xool xam ne yow jullit nga Abdallah mais li jëntuwuñ loolu dañ lay faj bu nga ne cot ñun bàyyi la dem mm-hmm. lay faj da ngay yaakaar ne yow ñoom dañ loo nopp ko mm-hmm. mais Sénégal ngay am yow koo xam ne day nekk en commun war a dee ñu nga dëkk si gardien naa la noo tagal ticket trente mille wala quarante mille quoi amul dee kaw ngay doog a wax naan ñun ay jullit lañu quoi ba pare yow yow ñun da ngay laaj yow loolu yow nan yow wërëj nga wala tijaan wala lii nga quoi. non dañuy wax rek naan ay xool ay quatre vingt quinze pour cent ma di nax waa monde islamique bi di nax tubaab bi xoolal Sénégal ñëpp ba ci man mii di wax ñëpp ay chrétien lañ ñëpp ay yahud lañ parce que li tax. Mhm. yow damal ci damal ci baax xoolal baar yi foofu tijji damal ci paf yi damal ci clando yi damal ci. naaj club yi guddi li ngay gis yow ñooñu ñëpp koo ci wax ni Aminata la lay wax ci Abdallah kii kii am kii Mouhamad kii kii nangam wala am na wala des ñu ñëpp ay boytan wala si xam ne mu demee mais gisoo gisoo gisoo rek ren ren Sénégal ñaata litre sàngara leen naan gaa yi def seen sondage waa gaa yi brasserie plus de 33 millions de litres xaw ma ñaata wu sàngara loolu xam nga ni ko tey kese naan ko saa waay voilà tax yow loolu sàngara dañ ko xamee woon bu njëkk ba Sénégal bu góor wala xale bu góor buy dox jeunesse am mais tey Sénégal jigéen ñi jekk yi dëriyanke yi. yow loolu ngay wax da ngaa baax rek la ñuy def. sëriñ si sëriñ tey tey xool tey damaa man tey maa duggul ci affaire sëriñ si yow yow man foofu yow la kal yow kal ko foofu rek. <laughs> nga mm-hmm. Allahu Muhammadu. point. amul sax dem te ñëw. waaw tubaab yi xool ñun ci biir dëkk lañ ne quoi dañu ubbi suñu bët xool quoi dañoo xool dañoo ci seen wàllu doxalinu yoon jub ci wàllu mbedd bi jub doo dégg benn tubaab waatal la te ñoom xool ñoo ñu gën a avancé fop mhm. da ngay dugg supermarché xam nga daf lay dégg nga naan dugg sax dama supermarché yaay dem ci machine bi xool tak ko defar quoi. Ah, hmm. supermarché yu amul gardien tabax ay nga di supermarché teg ko parce que xam na ni caméra yaa ngi fi kii du lu teg yaay dox yaay service sa bopp fay sa bopp génn dem. waaw ma yow xalaatuloo foofu jël naan dara da nga koy dugal sa poche wala da nga koy kaa comme noonu gars def Sénégal dugg si benn magasin jël benn affaire dugal sa kuy génn quoi mm-hmm. mooy loolu ma ne ñun nañu liggéey nañu fexe Sénégal quatorze régions yi def bu ci nekk région bu ci nekk ñu def ko ba xaw a mel ni Ndakaaru quoi pour ñeneen citoyens yi nga xam ne ci ay région lañ dëkk ñu mm-hmm. mun a am jàmm quoi ah. européens yi boo gisee ñoom seen biir benn européen ñeewul ku dëkk Paris wala ku dëkk fële wala ku dëkk ñëpp ñoo bokk li ñuy dund ba ci yow sénégalais bi luy seen appartement yi sax yow da ngay mel di dund comme ñoom quoi. Mm-hmm. yee. billaay waaw man xoolal fi man nekk nii damay man damay nekk man seen nekk Sénégal yoo xam damay toog yàlla ma ne non man Sénégal bu mu juróom sax gouvernement bi mënu am li mënu am lii ci moom quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. man non fii xam nga billahi tallahi wallahi mun naa tëdd fii léegi léegi moo jël numéro sax.

ñun dañuy dañuy jóg ak ay tubaab hmm. man damay fen des fois di fenal Sénégal quoi ndax ndax mos naa wax ci mos naa wax yi may liggéey lool faal mais Sénégal ah Sénégal amul liggéey ñoom quoi am na liggéey sax moom vraiment ah, en gros quoi ma ne leen comme ma teg ne leen cinq cent euros waaw bu ma leen waxee cinq cent cinq cent euros ñu ne ma ci nekk reetaan ba jàpp biir quoi hmm. waaw xam nga du ma ñu ne ma ah waaw mu ne ma non si xaalis man maa ngi ñaan même bu fa waajooju bor waajooju nekk foofu buur bi bu fa jógee ba keneen ñëw muy Sonko muy keneen man li may ñaan ngir yàlla wóor a suul li ñuy wax simik doomu aadama yi nekk Sénégal di liggéey comme weer nii xoolal gouvernement war na defaral lu mu néew néew néew war nañu fay Sénégalais nekk cinq cent mille sax CFA sax. non day ëpp day ëpp sama waaj man bëgg naa développement wu Sénégal de bëgg naa mu àgg kii nangam de mais balaa ngaa développé bay jël yenn xaalis ak yenn affaire di ko teg si loxo sénégalais wala yenn affaire yi dafa wala leer. bàyyi da ngay dem jëlaat ay loolu nga jël dof jox ko almet du ñuy taal dëkk bi. yaa ngi yaa ngi wax. non non non non Sénégalais yi c'est que balaa ngay teg changement seen loxo. ba ngay jël alal ak yenn affaire di ko teg seen loxo. foog nga xamal leen liggéey. xamal leen gëm seen bopp xamal leen xaalis pour au cas soo ko tegee seen loxo nu def si lu am fulla mais jamono ji soo leen ko joxee nu dajalewaat ko. dem joxaat ko sëñ bi ñëw toog farankulaay di am mel de nit ñi. les Sénégalais. mais voilà tubaab bi ñoo naqaral suñu bopp tubaab bi li tax ñu développé du ñu liggéey naan ñu ngi jox addiya pape wala keneen wala tax loolu ngay li jënd balaa di naan nañ jox gaa yi gaa yaa ngi laal ñu ñoo ngi nii yow yaa ngi noon Normandie ñaata ngay yónnee par fin du mois muy dugg Sénégal balaa weer bee dee <laughs> balaa weer bee dee nu ne la bor bi fee bor bi fee des na yónni waatal parce que xamuñu noo koy amee xamuñu noo koy amee xamuñu looy sacrifier balaa nga koy yónnee

ñooy joxe dépense yi ñooy ñooy ñawlu ñooy jënd xaru tabaski yi ñooy defar moo tax ñun ñooy yëgaat encore cette souffrance ñoom duñ ko yëg ñoom duñ koy wax nii rek mais yëguñu ko instant bii nag ñoo ngi tal ay ay ay ay xam nga toj xaw ma lan tus tasar ñoo ngi créé ay fecc di tus tasar ñoo ngi créé ay affaire di ko ñoom yëguñu métti tu dëkk bi voilà kër goo fëgg yee kër goo fëgg am na ñaar wala ñetti immigré yu nekk si mbedd bi yu ñuy woowee ay xar wala mbam. loo xam que lu kii rek ñu capp téléphone à n'importe quelle heure donc sénégalais c'est ça le problème du leen tàmbal xaalis mais tàmbalu du leen du ñuy defar xaalis et maintenant ils ont créé beaucoup de choses de folklore nday euh, njëkkee euh, premier mai ñaareel mai jaar fi dugg na fële kookoolu dugg daal toutes ces choses Moussa. waaw. ma ne man loolu moo tax ma ne la sénégalais bu nekk war na am stage en Europe pour wala Amérique wala Asie wala feneen quoi pour xool rek ni ñuy ni ñuy européen di dundee quoi fii doo xoolal dañoo ñun ay jullit nañ te civilisé wu ñu ngay gis ku dox ba saf saw bu génne xooyam na ko jàpp ci miiru jàmbur ne ci xoolal doomu rab rab rek mooy dox ba mu neex ko mu taxaw saw mais imagine li ma la wax ndax doomu aadama ak loo saf saf saf saw. war nga dugg xool si tubaab bi xool ñooñu gën a nekk nit waaye moo ko wax ñun man damaa ñuul gëm nit ku ñuul gëm négritude xam ne ni pour être humain mu ngi commencé ci ci nit ku ñuul même boo demee ba Égypte nga génnee wax ma la firawna bi mujjee nii mais firawna yu njëkk yooyu sax dañoo ñuul non nit ku ñuul ñu ne Cheikh Anta Diop dafa am xam-xam dafa def lii dafa def lii mais ñun Cheikh Anta Diop ba mu demee ba léegi yow nan nga mun a jëlee Ndakaaru nga dëkk ci tabax ay immeuble def lépp jël te li ma gën a nag ci senegal mooy te heure boobu nga xam ne nii dañoo fatt boor bi fatt boor bi. Moussa. bu ñu bu ñu jógee bu ñu jógee camp di dem Cherbourg métro la ñuy kii la ñuy jël TER. mais xoolal ñi ngay xoolee boor bal xool boor bale waaw. ingénieur bi liggéey loolu Sénégal ba pare yow elokoon elokoon nga def ko sox benn ay ay chaque chaque cinq mètres bu nekk nga def ko benn fuul jàllukaay quoi mais loolu sénégalais population yi nga xam ne ñoo comment ñoo dëkk yaraax entre yaraax ba ba Sicap Mbao ba jàmba gën ñaari dëkk yi la xaaj ci diggante bi ndax te heure boo xam ne dawul dawaanu ñëpp fo dëkk ñëpp dañoo xool dañoo dañoo am problème booy booy dem Pikine da ngay ay poste caaray lolu dal man yaakaar eh, na dañ koy mën comprendre ay nit ñu muus quoi Sénégal man jamono. voilà non non. xam nga man Sénégal li ma gëna metti nenañu ñun suñu ministre yi nekk ci gouvernement bi yëpp nenañ ay borom xam-xam li ñoo jàng. ñooñu ñoom dañuy ñëw fi Europe yow nga xol Europe ni ñu ko liggéey te yow mënoo ko liggéey sa réew mais nga xam ne amoo xam-xam ñoom ñoo fa nekk naan dañoo jàng dañoo dem ñoom jànguñu ku jàng da ngay mel ni tubaab développé ci ñëpp foo dugg da ngay xam ne nii bàyyi tubaab bi danga naan kormari waay por kormari du por samba waay du moromam. waaw. non mais Sénégal ngay nekk di wax di wax di wax rek. mujj bi comme ça ñeneen ñu mën dugg tamit. voilà voilà non tey dama dama tàng quoi parce que dama xam ne nii yow bon côté beneen côté bi ngay wax noonu sax xoolal yow daayal boobu moo ko xoolal yàlla moo fi nekk Mouhamad. waaw. wasalaam. ñeneen ñu dugg. jaajëf la moom comme moom nu may waxee rek moom daa ñëw génnee ma carrément si contexte sama laay sa yóbbuwaat ma si ay affaire dëkk bi quoi moom moom affaire Sénégal la ma yóbbuwaat ay kii mais man kon ma ko waxee rek sama point ak sénégalais yi mooy instant gi ni ñun du ma lu may xeex si Sénégal xeexuma ko benn doomaraamu génération bii nii wala gars yi fii xam naa ni que génération bii nii moom c'est déjà trop tard comme nu ma koy waxee chaque jour luñ si repêché nu repêché ñun nan dem rek yàlla na nu yàlla ñaanal quoi rek nu dem lii nuy def c'est pour les jeunes qui viennent la génération future bii lii nu dund duñ ko dund voilà fen yu metti ye immigration duul jàppee mi ñi ay mbaam duñ ko dund point barre ñun suñu demee comme ni ma ko waxee rek ay jeunes yoo xam ne amu amuñu benn benn benn benn volonté ay nit yoo xam ne ay mbaam yoo xam ne ni que tey jii nii ñom comme li ma koy d'accord nenu dem top ci ay ligu pa wala ay doomu xaraam comme bok di liggéey di jox ay nit golo di bay baabun di dundee voilà ñom d'accord nenu ci lolu donc cette génération là on a qu'à faire une croix dessus ñun suñuy wax mom moy comme nu ma ko waxee rek ma Sénégal jamono ji lu ñuy dund man je l'ai toujours dit man je ne suis dans aucun parti politique I don't give a fuck voilà mais fou Sénégalais yi bëgg lu Sénégalais yi bëgg ma ne ok comme comme mom ngeen décider Ouassalam. Man, je suis pour le chargement de tous les Sénégalais, autant qu'ils sont. a une mais franchement ça le Sénégal mérite Macky Sall Moi souvent je parle de Macky mais à certains moments je m'arrête je vois que Nico, bon Macky Macky est un bon président pour le Sénégal le Sénégal mérite bien Macky et pire que Macky Sall parce que lu tax uudee nu mu la gisee la lay owale ñun suñu demee ba ñàkk fayda comme nu ma ko il y a des si dëkk bi daal di ne am ah, y a des sauveurs dans le pays pare see xeex soo ñu ne la diw moo sauvé diw moo def diw sutuloon diw ñun ñëw diw wala la la diw nit ñoo ñoom pare lool noonu nu nekk fii ba léegi mënunoo am lu nu lekk ndox bu naan ndox bu set mënunu koo naan donc ça veut dire que ñun lu ñuy dund ñoo ko tey ñoo suñu bopp on aime cette vie comme ça parce que de la façon que nous nous sommes comme nous nous gëmloowee toroxlu pour am nous nous ngi nous ay nit nous nous ñu torox di leen Rolls Royce di leen Chrysler ay palais donc à certains moments on doit faire notre autobiographie et voir que c'est nous qui aimons ça on aime ça jamais nous sommes ñun suñu biir ñu def Nous nous nous wal wax ma quelle est l'association que nous les Sénégalais lan leen def ñun suñu biir jéem a booloo pour que lii dootuñu ko dund pour ñu jóge si lii wax ma si benn amul ñoo ngi ut ay tarixa wala ut ay affaire di xool ku si nekk nooy ràcc jëmalee sa boor wala sàbbal boor boobu donc loolu noonu dëkk bu mu am pour nga soppi ko amul parce que tey dëkk bi demagul fenn rek xoola tey Sénégal nu sonné mais am na ñuy programme seen bopp si biir dëkk bi que su duloo ñoom Sénégal du am am na ñuy proclamer seen bopp ne su duloo ñom diine du fa am su duloo ñom Sénégal du am liberté que ñoo xete Sénégal xoolal ñoo ngi say problème mais ñoom ils sont déjà en train de revendiquer le Sénégal té dama demaguñu fenn soo leen les problèmes yi nak bo lé ko ci revendication ñu bañ ko ñu daw du da né non non non non non yaa dé donc la moo tax ma ne suñu joxé tay ji nak ba Sénégal am xaalis wala waré ba wala ki nga jël nga jox ko c'est seulement ça rendu encore plus riche que lépp le sëriñ sëriñ bi kay gëna riche mais ñu yi du feñ addiya ñoy gëna gën a sas bi gëna a yokk gars yi dajale lépp dem jox ko ñëwaat encore tok di joy di xol ay mbam yu dem jëkëti pour dundal leen ça va semer une continuité parce que il y a un point que tu n'as pas touché bo leeralul bo dugalul ci bop nit ñi khalis duñ koy multiplier so amé da rek kay jël investir teg mais pas khalis do ko joxe di ñaan di tok di xaar muy ñëw dama leen di raconter benn histoire boo xam ne histoire bii nii benn imam bu ma doon jàngal si biir kaso bi moo ma ko raconté mu ne ma daa amoon benn nit koo xam ne ni dafa toog léegi moom nu loo ko ni que gëm yàlla day sauver nit que dina ko génne moom nag nun ko ko waxee nu ko dans quel sens ak nan la gëm yàlla bi di sauver nit jàngaluñu ko alxuraan waxuñu ko sens bi quoi duñ ko ko wax nii rek a un mot grosso modo moom tamit mu def analyse mu def kii am il a fait sa conclusion saa waay daa di taxaw daa di ne moom daal léegi lépp lu muy def rek su demee ba am tolof tolof rek. day jema fatte fàttali gëm na yalla jema ñoo taxaw delu fa yalla xam nga yalla dina ko suufa ben bis mu yor galam bu ndaw mu dem ne day nappi ba muy dem di nappi di napp ba si biir rek gal ba daal di am problème mo bi ki gal ba kep sa way commencé di lap si ndox bi di paj paji muy paj di paj paji di paj ba jek di xala nan yalla ah man fa talibé man mi nga xamni ko xolal waaw ba ma xamee ba léegi ba ma la xamalee ba léegi maa ngi góor góorlu si sa kaw maa ngi jaamu maa ngi nekk si lépp lu nga bëgg maa ngi nii nag waaw soo si jàppulee dina doy waar de dinaa faal te instant bi bàyyi naa njaboot si kër gi. nu muy waxee noonu balaa di daare am benn lébu bu romb nekkoon si gaalam bu ndaw tamit gis ko ne ko eh saa waaju nu mu demee nii yow xanaa sa ba sa gaal bi daa diig ba koo sànni buum pour jàppale ko saa waay ne ko déedéet demal. damal man ñaan na yalla yalla nga ñew sobe ma yalla dina ñew sa way wax wax wax wax mu ne ko non xolal sa way damal yalla nga ñew man gëm na ni que yalla dina ma sobe sa way ne ko ah ok salam sa way da di doxantu dem yoonam mu nekk ci ndox bi paj paj di gën di sonn di ñàkk xolé énergie top ci di ñaan jek jek xamna yalla yalla ne ci xelam xamna ni amana gal gu yoni mo tuti daf ko xeb ke xara ma doli sama loxo. yàlla xaw a ko foofu noo xam bu ko xaw a gën a mag comme genre vedette yi mais bateau yu mag yooyu sa gis ko ne eh, sama waaj danaa da ngay dem leen amul yàlla dina ñëw dina ma sauver ay affaire kii wax ba gars yi tamit découragé xool ko ne ko ah mu ne ah gars dem bàyyi ko fa yàlla tamit toog xalaataat daan ne ah amaana boobu tamit da kaa xam mais xam nga troisième fois ba la wàcce ngan di pack boo conteneur yooyu yooyu doo nga am ko fële jóge pack boo bi jóge fële pop pop ñu pouvons koo sànni boue, même chose encore non dem leen yàlla dina ma sobe, ah kii gaa yi dem saa de lap dee mawti ñëw jël yóbbu mu daal d'a daal daya mu ñëw taxaw mu ne ko daal xam nga mu ñëw taxaw mu xool yàlla mu ne man yàlla xam nga man sa jam bi nga xam ni ko julli rek la doon def lo te lo tere ma bàyyi lo digal ma nekk si ma am sama tolof tolof ma dem ba si géej bi sama gal am problème mu depp ma nar a malay ñaan fu nga ñew dimbali mu nga tok di ma seetaan ni bama ma quoi hein eh, comme man foogoon nani ni yow suma la kii di ya la nako wa mais sama waji man dama comprendre parce que yow ba nga commencé di wax ba wax bi daf ma laal laal bo xamna ni ke mo xol si lepp lu nga def ma yónnee la gal bu ndaw mais yow nga ne gal bi do ci mo ni da nga xeeb gal gi ma yokk sama loxo ma yónnee la sa lu xaw a tane ki nga ne ma doo si yéeg mu ne ko mu ne ko troisième fois ma yónnee la gaal boo xam ko moo ëpp si gaal yi mu ne mu ne mu ne nga ne ko yow nga ne yow doo si yéeg mu ne mu ne ko léegi yow saawaay ne ko ah ma ne ko nag sama xel amaana yow da doon xaar yàlla wàcc si ñëw jël loxoom dugal ko si biir ndox bi yëkkati ko moom si boppam sauvé ko génnee ko teg ko si tefes bi loolu mom moy problème motax manan suñu problème ñun dafa nek ni nu xam lan moy problème bi nu wal ko mën fajj wal ko mën a li jënd mais nu toog soo waxee nu naan dañuy xaar yalla mm-hmm. nga lay Sénégal ñun suñu problème xam nañ ko mais tey comme noo waxee duñ koo jël si ay nit ñoo xam ne wala ñu nuy gëmloo naan nu oh non dinañ la yóbbu fële yàlla nii yàlla nee na lee yàlla nee na ke te comme noo soo ñoom soo leen si fekkee si yàlla nee na du la tot ñun suñu bopp du ñuy xaar yàlla mel ni que yàlla moom moo nar a ñëw wàcc Sénégal ñëw changé dundin bi wala ñëw jàpp si loxo ku nekk ñëw ne ko ok kañ dem point yu nu yàlla di woon exemple yu nu yàlla di defal ñun duñ ko xool ni dëkk bu demoon ba nekk si tumuranke toll nii ay ndawam di génn bëri ay immigré ñuy dee si àll bi jëkki-jëkki yàlla feeñal fa gaz ak pétrole ñun ba tey nee nañ xolal duñu yeew ñoo ngi toog di xaar yàlla di ñëw yàlla lu duñ ko jàng jéem ko analyser non duñ ko jàng analyser ko moo tax ñun lu ñuy dund tey ñoo ko teg suñu bopp lu nu Macky Sall teg ak ak lu ko keneen teg ak yeneen président yëpp c'est parce que ñun ñooy doomaraam yu mag yi on ne veut loo nu jox nu dem jox ko ay yeneen dooma xaram c'est comme tey nga yor sa doom sa doom nga yor ko si kër gi di ko toppatoo di si def si moom su heure heure jaa ngi jot nga defar saagam defar guteem loo si def jox ko mu dem joxe ko si école bi su ñëwee ne la joxoo ko nga lekk loolu ban xeetu doom la loolu moo xew ak sénégalais yi loo leen jox. ñu dem joxe ko ñëw toog après encore di jooy naa la dara amu fi wala dara kiiwuf as tuuti lu ñu yor duñ ko yor daa di ki taxaw wala daa di xool lu ñuy def lu ñuy dund ñoom ñu ñoo ko teg suñu bopp ñoo ko teg suñu bopp voilà tant nag déggool ma ces imbéciles nii di woote ay waxu fa yaa di duul li jëntiwuñu leen cette histoire va continuer cette histoire va continuer dafa bëri ay duulkat wax génneen naa la nag trente non ci soixante six duulkat imagine te soixante six doom yooyu noonu xaat la ñaata doom lañ jur ñoom tamit ñaata sët moo tax ma na ne gis ngeen jamono ji foo tourné nu ne la faal mbaal bakke kii ki nangam mais xoolal lu nu sakkan sakkan sakkan sakkan sakkan ñoom ñëpp lu si gën a deena loolu dëgg naan cheikh cheikh cheikh cheikh cheikh diine amul Sénégal lu extraordinaire tey billahi su ñu defoon recensement Serigne soos ak Cheikh soos noonu yëpp teg on va toucher 1 million de Serigne et de Cheikh tout confondu au Sénégal su ñu demoon Sénégal nous recenser leen def enquête de proximité ñom tous ces Cheikh Mbacke Bousso Fall si Niass Laay Tekki yëpp ma teg nee on va faire sortir de 1 million à 2 millions d'individus yo xamné ñom ne ci ñoom ñëpp dëkk bi presque waaye dégg nga un quart de la société c'est des des marabouts c'est des marabouts mais dëkk bi ba tey mënul am diine nit ñi loo laaj ñu gag tontoo la ay saaga wala nekk fi di reewantalu ay daaf ay daaf dëkk bu bëri ay nit yoo xam ne ku si nekk ngi yor caabi àjjana nag mais ñoo ngi yore bor boo xam ne ni que depuis plus de vingt cinq ans mënuñu koo fay nous sommes le vingt cinquième pays le plus pauvre et nous avons une dette boo xam ne ni que bul comprendre sunu ndaw yi

Tao so ton se rêve se gint bok se rêve ton seul souhait moi nga génn de bi dem nga génn nga dem si bi ay nit te dëkk bi yow nee nga yaa dee nitu yalla yaa porte par le paradis mais ken bëggu fa toog bizarrement dëkk bu Limaamu Laay bu Kunta eh, Serigne Touba Mais ki ñoom mais kenn bëggu fa toog ñëpp a bëgg dem Quel mënu nous tekki kenn quel gëm xam ne kenn soo waxee tekki sa teddal sa ndeeg sa baay koo si ne tekki la sa ndeeg sa ndeeg sa na la génn immigré wala xam tout qui, lan lay wax musiba naaru laahi tu es obligé de laisser les tiens de laisser ta culture pour pouvoir maintenant aller avoir quelque chose ndaw yëpp kenn bëggul c'est extraordinaire un pays qui que les gens ne sont même pas nostalgiques de le quitter mais ce jugee nit ñi fëgg seen ay affaire wax so jugee ni am ah moi nous ma wax gi comme nous nous ko rek ñun luy xorom seen leufal chaque jour néna len ndey Nous yu leen jur faute ñun du nekk nu fii nii di tam ñun neenaa naa leen saagante ñun duñu xorom sax léegi xorom bàyyi naa xorom bis ni ki tey sax léegi bàyyi naa xorom parce que maanaam comme ni ma ko waxee soo amee inspiration wala nga yor sa xel dangay mën a xalaat léegi jël leen tout xam nga man sax léegi je partie partir léegi dans d'autres choses léegi man damay miel léegi man damay xoni booboo gën a dee léegi encore kaay leen ngeen jël voilà xam comme que vous êtes les intelligents yéenay borom xel yi yéenay borom xam-xam yéen a mën léegi man bàyyi naa xam léegi man lem laa siy def dama koy lem dama koy xone xam nga xone xaama woon léegi bii laa jël xone voilà léegi duñ koy xoni bàyyi leen xorom dinañ xoni seen lëfal ndey point barre seen digg lëfal ndey la ñuy xone voilà dinañ ko lem di si def lem léegi. ñun foofu leen toll ñun seen ndey ak seeni kii nii waxuñu si lool nee naa la ñun lu leen reewal ba teg leen fii ba ngeen toog di wax di saaga di expliquer ñun lëfal ndey ñooñu leen wax. lëfal ndey ñooñu leen wax ñooñu jug ba ñëw taxaw di leen ngembaki di am lu ngeen di taxaw ba di saaga di wax ñooñu seen lëfal ndey. voilà maanaam ni que Serigne Touba moo tax ngeen génn ngeen ñëw di taxaw di saaga ba pare ngeen ne nitu yàlla moo tax ma ne leen lëfal ndeyu Serigne Touba ndeyu ndeyu Serigne Touba 33 ndeyu Serigne Touba maanaam ni que si ay saaga ngeen ko mën a défendre si ay saaga la ñuy kattee seen ndey su ngeen amee xam-xam bu ngeen koy défendre nag si xam-xam di dinañ tontu seen ndey tamit si xam-xam c'est tout du leen poser question ngay ñëw ngeen ne da ngeen di défendre Serigne Touba. ngeen ñëw amoo leen amoo leen benn réponse amoo leen xam-xam bu ngeen koy défendre si ay saaga saaga yooyu noonu ngeen di teg nag di ko si défendre la ñuy jël delloo ko seen 33 lëfal ndey déggoo lu ma wax seen moom si boppam Mame Mor Anta Sali 33 lëfal ndeyam Mame Diarra Bousso 33 lëfal ndeyam Serigne Touba ndeyaati ndeyam point barre maanaam ni ko moo leen yónni pour ngeen génn defendre ko si ay saaga génn saaga tout le monde ñëw teg lëfal ndeyam point barre ba jour bu ngeen di yeewu commencé ñëw andi ay réponse te nekk nit point di ngeen ko lijjanti nag seen biir voilà yéen la yéen sen bir nu ngeen def vous allez vous gérer sen bir après ngeen génn nee len sen seen xamadi bu ngeen di jaay tant que ngi génn di ko teg ko teg si kaw Serigne Touba képp ku bëgg nag mu juge bis bu ngeen jugee ba réponse yi ngeen commencé koo teg si yar teggin billaahi dinaa wàññi sama dagar si Serigne Touba mais tant que yéen ngi ñëw di taxaw di naan da ngeen di défendre question yi si ay saaga dinaa ko dugal si biir lëfal ndeyam point barre parce que yéen yéen a ñëw. en tant que ay élément am ñëw ne da ngeen koy défendre te amandiwoo ay preuve de réponse mais ay preuve saaga ngeen fi andi dineen kat seen ndey dineen kat seen tuunu ndey léegi nag comme nu ma ko waxee maa ngi ñëw dem doxantu gis naa la yow euh, Aliou Ndiaye yaa ngi toppanteeg ñoom encore ay euh, ñoom maman Aida ah Omar Ndiaye ay affaire de kii ki nangam dugg na fii maman Aida soo amee ndox bu sedd naanal soo amee lu la jege naanal soo amee ice cream jëlal sa ice cream boo a ah, Sénégal est-ce que am nañ ice cream crème crème jëlal sa crème glacée nga màcc nga toog nga seddal sa xol xam nga man duma ma put ak pute clandestin yaa ngi dégg ces putes clandestins là ay genre Oman Ndiaye kii nangam ak tout cela laisse comme ça Oman Ndiaye su demee ba xuuróom yi su ko peesee mu peese xuur yi mat mu gis ni que c'est le bon kilo dina génn si Facebook am normal comme jour bu mu jugee bëggoon fee ñëw cogatu woo ma téléphone di jéem a am nu ma expliqué il va sortir de son faux profil et il va venir dire ce qu'il a ma saaga lëfal ndem yaay comprendre ñemewul lu muy def man je ne derrière ces vieux lâches di làqatu tu ay ginnaaw fo pour lan dem tok nan, waaw man boy, bi du ma ko sax setan wala non man damay déglu keroog fekk naa ko si ci live euh, Ousmane Sow ñooñu nekk man damay deug man damay deug man day may doxantu ça dépend de l'heure que tu me trouves aquí je ne suis pas complexé mënoo di xeexal ay ay conviction ba pare nga complexé wala nga reuy wala nga ki loolu ce n'est pas des jikkow combattant combattant da ngay humble yaay comprendre man je n'ai pas ce complexe si j'ai le temps su ma nee sama téléphone je défile je défile lu wàcc sama kanam dina taxaw jox ko cinq minutes dix minutes bala sax di cliquer di dugg déglu si lu muy wax Suma xawé intéressé ma soo cliquer nak soo dugg deuxième fois mu afficher Elage Moussa Camara Wash with you Mané ne dila di Suma déglu su ba xamni que ne fii mën naa fay ma sànni fii grain de sel Suma fi amul grain de sel bu may wax ma doxantu ji yaa comprendre nous on n'a pas làqatuunu làqatuunu te yow laqatu sa compte nga yor ya ngeen ki nang. wax nañ ko lu ngui wax Yamala nañ ko si place am xam nga leeral len ko par on part dans d'autres choses à à fouetter xam yo yow sunu maman nga comme nous ma ko waxee rek euh, nit du nekk si suuf di la yuuxu ba nga chaque instant quoi à un moment soo faire le point ces gens d'énergumène comme Omar beaucoup bokkoo leen ligue bokkoo classe beaucoup leen poule beaucoup leen même pas xoolal muy social muy état ni mal dans tout vous êtes différent dans tous les côtés. quand tu as mis les points nga yemal ko place am rek ni te mel pas ak ñoom quoi bàyyi leen nag xam nga doom yu mel ni ñun xam nga kii nangam ñun comme que xale leen xam nga te ñoom mag ni ñoo nu wala woon yoon ñu nekk fi di dof-doflu bàyyi leen ñun y' a pas de problème on peut faire mais yéen mag ñi il faut avoir xam nga rek une autre grandeur quoi bàyyi leen ko day làqatu di tëb di wax ak kii nangam Moussa Camara làqatul keneen ak keneen làqatul soo amee looy wax rek soo tu di nga dégg sa musuba Point barre. Parce que nous, on est là, on dit ce qu'on a à dire. Voilà. Donc, on a... de genre énergumène yu mel ni Oman Ndiaye wala nu leen yakal journée Ah, wala nous leen yakal cette journée Oman Ndiaye comme nous ma koy waxee su nekkoon mën wax sax waxuma la sa mais mu mën wax mën wax lu nit ñi a sax à la rigueur sax mu mais hélas, le gars ne peut pas parler des choses que l'on peut entendre. Lui, il quelqu'un quelqu'un comprendre. c'est ça le problème man voix gorge ces genre de personnes là soit tu viens tu vas te rabaisser avec nous, à la fin da ngay des, fayda da ngay fayda Tu donc nañ ko seetaan ba bis bu muy ñeme bis bu muy dem jël balance mu jël xuuram yi mu teg ko ci balance mu peese mu xool ndax mat na bis bu xuur yi matee il va prendre ses couilles en main yaa ngi comprendre il va prendre comme que ñemewu ko rek ay jigéen la ko séqal wala ay moroomu rakkam ba pare nekk ci ay ginnaaw ruq xam nga di wër di saagaak di kii nee na laisse mouton bêler tabaski viendra c'est tout bàyyi leen ko mu cëppi cëppi tabaski viendra Tabas qui viendra, nous tabasquerons c'est fini. Rien comprendre. Donc, dal, mama aide. Eh, ma le ñaanal nga am diam. air extension yow tamit amal ah, ye yée bàyyoo amal Fatou mata Danso amal jam, Maria Sek, amal jam, Mama Aisha. amal jàmm voilà y en a trop y en a trop voilà sunu maire yu ñu fi am yëpp am leen jàmm père Ousmane Dramé amal jàmm yaa astu yéen ñëpp am leen jàmm voilà léegi nag comme ni ma ko waxee rek on doit avoir maintenant une nouvelle attitude mooy lan attitude fulla ku am looy wax nga ñëw nga teg ci table bi lu ngay wax mu clair. nit ñi wax si voilà ku jóg pour ay kii saaga yi nangam nu daas rek comme nu ma ko jarul nu kay top mu gudd du ñuy daas ngi comprendre ye hakim si amal waxuma la amal jaamu sama yow amal lu pata yaa ngi comprendre nen kay def par saison pour nu bagn ko wes pour nu bagn ñoo jaxasse si sunu but wala si sunu jëm yaa ngi ku fi génn di saaga comme nu ma waxee rek c'est pas méchant c'est pas méchant da nga génn di saaga soxorul mais méchant lan moo tax ngay saaga loolu noonu tax ngay saaga da ko jël rek multiplier ko par l'infini nga ruux ko sa lëfal ndey wala si lëfal ndey ku nga yaakaar moo la nar a yóbbu na def ko ko suppositoire c'est simple donc daal nu def noonu ba si beneen waxtaan. xam nga nu def loolu ci beneen waxtaan yeah yeah yeah yeah ah tey da ko à part Fatoumata ñu ngi fi lim ñëpp seen lëfal ndey non non ah yow ñeme woolu ngay def moo doo lu nga def ñeme woo ko loolu laa lay wax ñeme woo lu ngay def ñeme woo ko de ñeme woo lu ngay def à part Fatou Bata daa soxo ñu ngi fi lim ñëpp seen ờ, ờ, la fa ndey xaaral ma limaale sa ndey comme ça Omar Ndiaye Aliou Ndiaye sa yaay tamit naam jaamu quoi amal jaam sa yaay loolu laa lim naa ko fi moom depuis ça le départ bi moom laa njëkk lim ba ma naan sax sa yaay mom moom garaawul moom du nga koy bàyyi di ko ñaanal moom joolul yaa ngi comprendre mais yow sa sëriñ yaa ngi comprendre sa yaay laa njëkk lim si lim yu njëkk ya Aliou sa yaay laa njëkk lim tey si live bi balaa lim sax di am yaaka taa maman ka yaa laa njëkk lim lim ko limaat ko lim ba ma naan sax hein sëriñ bi moom su ñëw mais sa yaay moo nañ ko ñaanal kii teg ko sa yaay na am jàmm lëfal ndeyu sëriñ bi donc nag soo nee nu ma lu ma lim ñëpp seen kii sandai dagal fi tamit nga won ko sa xamni sandai ni que lëfal tamit lëfalam ma ngi ci bir lu leer la ay tegal waaw se lëfal ndey mom la ñeek tuddu bala ken di am wuu lolou kay bu mu la sax sonal ñuma fi tuddu ñep nga wax ñuma fi tuddu ñep nak sa ala tek sa yaay mo ubbi liste bi sa yaay mo nek si kaw mom moy capitaine mom la takal brassard lu leer la lay tegal waaw lu leer la lay tegal sa yaay saya ialah Takal Berasar. Saya moy kapitan bi. lo Lofal nday yoy non nak. jappal sa yaay nag moom mooy bu kaani xeeñ bi wala mom moy bu kaani xeeñ bi ah ah ah ah wuy sama day dara sama yaay sama yaay nga sulli lan nga kat ko waaw nonu la parce que waaw sa serigne yow kula wala yobbi mom da don katate ay katolog ngene xam nga moo tax yow soo kattee ba katt néew ñun loolu du ñu jaaxal c'est pas un problème de waaw alhamdulilah man nee naa la sama yaay day dee sax xolal munuti di ko wër di ko suli di ko kat donc loolu moom mooy baax mais yow nee naa sa yaay ñaari kooy la yor déggool ma la te moom lëfam li moom laa njëkk a jël teg ko yow ñaari yow ñu la jur ñoom ñaar ñëpp ay kooy leen yoroon ak i xuur loolay problème bi mais man alhamdulilah am naa yaay boo xam ne katt nañ ko ba mu dee. yow ngeen di toog sax yéen kattalu katteurs yi ngeen dem sulli ko bëgg ko katt ngeen koy katt si bàmmeelam yaa ngi comprendre moom mooy waxu katte bi rek waaw loolu bu mu leen metti de bu mu leen metti ñu loolu ragalu nu loolu waa sa yaay kii nangam nu nee naa la ragalu loolu wóo saa waay dangaa daanu dangaa daanu ñun amuñu problème boobu mais daal lu wóor ba wóor mooy sa yaay mooy capitaine u caga bi waaw sa yaay mooy capitaine u lëfal ndey yooyu noonu nga saagaak capitaine u capitaine wa affaire yi comme boog nag lu si des moom mooy loolu waaw wow lu si des mooy loolu de yeah yeah si si eh, eh, ko katt yi wetti rey sa ndey ma ne ko Serigne Touba lan moo ko rey waaw man katt yu moo rey sama ndey de la même façon Serigne Touba tamit katte yu metti ko rey moo tax mënu loon am jaram ñaata kilo sëñ bi ñaata kilo la woon vingt cinq kilo leen waxee vingt cinq kilo am yooyu na a tey fu mu def yeneen kilo yi <laughs> ah du am yaram kooku du am yaram du am yaram yaram du ko am waaw 33 femmes moom nga war koo fas yéenee maye deret topp ko di si maye deret waaw vingt cinq kilo di nga koy yéex a juge waaw waaw eh eh eh <laughs> ah, décroché wu ma fenn raccroché wul voilà live bi jeex na fii laay toog xorom seen cottu nday raccroché ngeen di jéem a woote décroché wu ma leen décroché wu ma kenn déggoo voilà sulli nga sama ndey kattu ko amul benn problème nee naa la looloo tax yàq sa sëriñ ak yéen yëpp ngeen toll lool sëriñ bi moom tamit waaw vingt cinq kilos mo yooyu noonu xam na lu tax mu teewoon say jug de vingt cinq kilos yi kay moom vingt cinq kilos yi moom du si juge mukk ka rek tới đi me deret dinga teum yaram fu mu teule de ah waaw man de kenn xaw ma léegi nag xaw ma ndax moom xam naa ni que yaay boo yooyu noonu mu doon moom du nu yëg si kaw moom moo doon yëg seen kaw eh eh eh eh eh eh oui sama day waaye yooyu oui oui oui sama dara dara ay màggat yu kat sa dafa day wër la ngay ngay wër di dul ma ne ko mooy loolu yow imagineel rek su ma màgget yi wëree man may duul ñan ñoo la wër ngay teppeeku rek ñan ñoo la wër ay katakatu ay katakatu ji ah, ay katteur rek la wër moo tax yow tamit ngay sulli bàmmeel yi di kat rek waaw fais ton choix de man ay màggeta ma wër may wër di duul yow ay katteur yow ay katteur ñoo la wër waaw wow ay ay ay ay ay katteur moo taxit waxu taat rek ngay suba taat ba si néewi ku nekk ak lu ko wër waaw léegi nag yow maire yu ma ñoo la naqari man nag comme ñoo koy quatre heures yu la wër man ñoo ma naqari katt nen fépp. voilà gisoo sànq maa ngi la tegal affaire yi fépp leen am ay doom ay diis doom fii quinze doom fële cinq tëdd fële douze tëdd fële ñaar nekk fële wuu quatre international. yow moom yaa ngi sax léegi bay sulli baabaa taalibe yi léegi di sulli ay bàmmeel di katt néew sa ça va mal ça va mal. hi hi hi hi bale la walal dii lay dakaaree seen ndey voilà gars yi su ma leen wuyoo dinañ dakaar sama ndey voilà léegi lu tax ma leen di nii laay dakaaree seen ndey comme comme su ma leen wuyoo ngeen dakaar sama ndey te wuyuwu ma leen de maa ngi dakaar seen ndey comme boog bu ma leen di wuyu di dakaar seen ndey c'est le problème nee naa leen reewante bu ngeen di def yéen de reewoo leen voilà su ma leen wuyoo di ngeen dakaar sama ndey léegi wuyuwu ma leen léegi fii laay toog ngeen may xool may dakaar seen ndey c'est un choix c'est ah oui ah quoi le problème eh man pare naa nag wax naa leen damay tëj te damay moom maa eh, tey moom mooy lool voilà bàyyi leen ko rek mu toog fii ma tàggali koog moom si jàmm ak salaam nu dem. moom fa na ni que dafa con wala àgg na nee naa la con ko sëkkale la gën a con man dama con boron waaw dama con boron waaw wow eh eh eh eh ah. waaw. sama sama sama yaay yi nga naa ay caga yu kat seen lëfal ndey amul problème mais yow ay sëriñ yu ubbi seen tuunu ndey nga yor ay sëriñ yu ubbi seen lëfal ndey nga yor yow waaw ay sëriñ teppi seen cottu ndey maa la ko wax de ay sëriñu katteur ay catalogue waaw wow yow tànn si sa bu neex rek c'est ton problème voilà man je suis chez les maires yu ngi koy woowee noonu mais yow tu es chez les capteurs les pédophiles et dooma xaram waaw yow foofu nga nekk les gin wala les borom awra les coupeurs am kat data rek yow fofu nga ah, oh. eh eh eh eh eh eh eh ba léegi àgg yo yow lay def si aduna gi ben njëriñ amoko ah kay ak ma am njëriñ doxaan nday ñuuxiti moy sama njëriñ ma ngi ni waaw xolal a part doxaan nday ñuuxiti aw ma benn kat sen wow, rek waaw top nday ñuuxiti ba mu sës yo yo loolay sama njëriñ loolu la ma fi yàlla andee leeralal ma ñuuxiti na leen naqari dee leen lu ngeen si mën mënoo leen si tous loolay sama njëriñ chaque jour ma ñëw live andi yoole teg samay affaire seen xool di bon waaw loolay sama mission voilà le reste là nag moom c'est votre problème ku mu naqari nga dee waaw maa ngi nii de chaque jour ñëw di leen xool nga nee naa la dinaa commencé di def live sa du ma wax damay ñëw def quinze minutes teg live bi nii rek def nii ngeen xool ma ba pare ma raccroché dem ngeen may xool sax laa la wax xoolal day doxaan seen ndey maa la ko wax de ah ah ah oui ay déggool day caga yooyu doon ngay wax su ma nooyalee sax yow sa association soo xefulee léegi mu transhumé fii waaw wow su nekkee sama mairie ngay woo association de caga déggool moo de mais caga yi caga yi nii ngay wax sëñ bi du leen laal de waaw xanaa yeneen caga la wa wax waaye caga yii ma associé ngay woowee caga yii sëñ bi du leen laal yii caga yii mooy ump sëñ bi nag waaw taatu caga yii ngay wax ni sëñ bi de du ko xeeñ du ko xeeñ de naa waxi leneen mais bii du ko xeeñ waaw moo tax ngeen toog di siisu waaw xam nga daa am caga clandestin am caga classe am caga high classe am caga bu am këyit déggoo ma de yen nak mom 33 caga ye amuñu won kër motax legi gaay di len neub quoi mo duñu len feñal gaay di wax di tourner am nga wa tata gi nek ci di wax ngeen di kii léegi nag ngeen sama mairie dem ngeen ba suul ngeen sama yaay ci suufale legi sama mairie ngeen cible mom ngeen bëgg boole ci liste bi mairie nak ay maire yu am jom len de mairie mom mairie pour nga laal len oh bas kañ nga ni bas bas duñu laal dara duñu sa xencu dunu saa xencu laa lay wax mairie nii mën a jënd ba jënd ndeyu bas déggoo ma de yow toogal foofu doon di wax rek waaw sama meeru caga yi ngay ñii ngay naan caga ñii de nay naa ñoo lay ump ñoo lay ump de ñoo leen a ump yéen ñëpp du ngeen si laal du ngeen si mos du ngeen si xool toog di xool rek muy jàll maa leen ko wax eh, eh. waay daana lëf yu xeeñ ma ne ko lëf la la waaw looloy daaneel sëñ si de lëf la lëf la ah, ah. ana Moussa waaw ana la wax xet boobu noonu ngay wax moom la sëñ si di wër 33 xet la sëñ si doon lijjanti wuu surtout ma jamono yooyu jamono amuloon ay nanaa de amuloon ay affaire yooyu ak nanaa ak yenn affaire do donc jigéen bu nekk yaay xam nooy gérer sa bopp am sa sanitaire yaa ngi dégg day wuu sëñ xet boobu noonu ngay wax moo daaneel sëñ si de ba talul bind waaw talul fay def dara jàngalu leen diine deful dara topp taat yi rek xet boobu moo daaneel sëñ bi gisoo xar yi xam nga xar yi suñu nekkee sax si gëtt xet bi commencé gën bu nu ne nii waaw doon sëñ bi def sëñ bi oui sama waaye sëñ bi quoi c'est pas sérieux ce qui se passe là ah loolu la sëñ bi doon topp rek sëñ bi toppee ne ko bawal bi yëpp xetu bawal bi yëpp sëñ bi xam na lu muy xeeñ sëñ bi daa da kaa bañ bi daa dem si biir kër fekk fa ñetti sër moom si boppam xam na ñetti yëpp lu muy xeeñ dégg lu ma la wax ah, booy booy nga rek tu n'as rien compris c'est que xet boobu noonu noonu mooy cafka gi ah tu n'as rien compris boobu peut ay kii daa nee naa daal booy lu wóor ba wóor moom mooy eh bii nii moom sëñ si moom eh sëñ si waaw waaw mo len di wump di ngeen toog saaga wax Siisoo ki de mais du ko ñam ha ah, ah, ha ah. eh eh eh eh eh oui sama day ah waaw waaw eh kaay lu tàggatoo man voilà li ñëw dem doxantu ma li jent gi leneen wala may perte sama temps sax ak maabul bi ni comme lu naan maabul maabul xaaral ma tegal lëf lëf maa ngi xam naan <laughs> Omar Ndiaye eh dama laa sax Omar Aliou Ndiaye nee na ma doo rus nag wuy sama ndeyooy man teemaa yuuxu teemaa yuuxu na wuy yaay Aliou Ndiaye nee na rus Aliou Ndiaye yaa mee waxum rus laa ilaha illallah muhammadan rasulillah Aliou Ndiaye de wax na waxu rus comme yow Aliou Ndiaye yow di rus yow yow di nga rus fii da la yem lii naan gumba noo sant mu naa la wele ah gumba noo sant mu naa la saa waay de nee ma yaru nag waaw ak rus rus comme yow Omar euh, Aliou Ndiaye da ngay rus c'est unbelievable you you amazing fantastique ñëw saaga say ndey saaga say taat saaga tuba ba pare et tu me parles rus man man ma rus Mais, mais, mais, mais, mais c'est la fin du monde, quoi. C'est la fin du monde, quoi. lii tey noo samp suñu bopp rek di dox ak suñuy loxo quoi wii saa tey yow yaa ngi ñëw saaga tout le monde saaga say ndey saaga say tan saaga tout le monde et après Yo lloraba. apa amor fueron, sé. Ah, ah, ah, ah. yo ya girus. kau ya girus. sebo. bo. Kom desa tuh tuti nite. Pogo nani kembam sampu sam pulsa nga kornyanyo. Mene kete desa nga astuti nite. kau bok bah na. Eh, sore nay. Waya yo Yow. Am kau ko suba amulon rusukay. Kala exize na sa yay bu yag. rus. saya ibu bulo jur. maa ngi koy exciser bu yàgg di jàpp xolal si lëf yooyu noonu ngay wax di dagg coppareet bi yaa ngi comprendre mais tellement ni que damaa am rusukaay moo tax dès le départ ba nga ñëwee di def say reewande man sa yaay dama ko teel ormal teel koo teg ko fenn xam nga teg ko nële dem lu jënt ji nag nit ñu tax yow nga ñëw ba ormaloo ndeyu jàmbur yi yaa ngi comprendre loolu rek un signe de rus la signe de respect mais comme du ma koy waxee rek mbaam moom day mbaame quoi mais comme que dese nga as tuuti tuuti rek moo tax ma lay compal boobu di la ko may quoi comme nag nag yow ñëw nga ba ne rus yaa ngi commencé am tuuti kersa ah c'est bon dese nga tuuti nite dese nga tuuti nite mais comme ni ma ko waxee lëf ba lëf la barki neexaayu lëfu sëriñ bi yaa ngi comprendre barki neexaayu seen lëfu ndey ak seen lëfu baay loolu la wax voilà lëf la lëf la voilà doon daal ñun si loolu laa leen tool lëf la voilà dañ si dem doxantu tàggatoo xaaral ba ñëw voilà Aliou Ndiaye lofli lofli. bari bu neexaay lebi sëriñ bi. sa sama baay sam papa gi xoolal kaay ma wala sam papa da ngaa Aliou Ndiaye da bëgg xam kuy sam papa sam papa ngi xoolal jëlal écran sama baay a ngi. suñu yéen maam suñu yéen tante ak di bàyyi seen ndaw. neexaayu lébu sëriñ bi neexaayu lébu sëriñ bi neexaayu lébu sëriñ bi neexaayu lébu sëriñ bi neexaayu lébu sëriñ bi neexaayu lébu sëriñ bi neexaayu lébu sëriñ bi neexaayu lébu sëriñ bi barke neexaay suñu lëfi ndaay fan yooyu bàjjan ndaay fan yooyu bàjjan suñu lëfi ndaay fan yooyu bàjjan suñu lëfi ndaay fan yooyu bàjjan suñu lëfi ndaay fan yooyu bàjjan suñu lay maam suñu lay tante suñu lëfi ndaay fan yooyu bàjjan suñu lay maam suñu lay tante ak di bàyyi seen ndaw waaw lëf la lëf la da ngay seen lëf la ngay lëfoon ba xam lëfi fan la. lëfi fan la waaye lëfi lëfoon ba xam lëfi fan la. da ngay seen lëf la ngay lëfoon da ngay seen lëf la da ngay seen lëf lëf la lëf la waaw lëf la lëf la da ngay seen lëf la ngay lëfoon ba xam lëfi fan la. lëfi fan la waaw lëf la lëf la da ngay seen lëf la ngay lëfoon ba xam lëfi fan la. waaw lëf la lëf la dangay seen lëf la ngay lëfoon ba xam lëfi fan la. waaw lëf la lëf la nga ne sa caga yëpp laay xaw ma lan bi kii benn par benn léegi déglul ma jox la ke ma jox la sa réponse nee nga comme que yaa si wax yi ba léegi rek am sa réponse déglul réponse bi. waaw daf lay lëf lëf dangay seen lëf la ngay lëfoon ba xam lëfi fan la waaw daf lay lëf lëf dangay seen lëf la ngay lëfoon ba xam lëfi fan la waaw daf lay lëf lëf dangay seen lëf la ngay lëfoon ba xam lëfi fan la lëfi fan la waaye lëfi sëñ bi waaw daf lay lëf lëf dangay seen lëf la ngay lëfoon ba xam lëfi fan la lëfi fan la waaye lëfi sëñ bi rek mat a lëfoon dégg nga est-ce que yaa ngi dégg Aliou Ndiaye boo booy sa réponse à propos xam nga comme ni nga waxee nee nga dangay ngay wër xoomal la kii voilà déglul bu baax saa waaye lu mu lay wax yaa ngi dégg déglul sa réponse lëf la lëf la da xool bu baax lëf li fu mu lëfloo wante daal lëfu sëriñ bi rek a mat a lëfal yaa ngi comprendre dégluwaat. <laughs> léegi seen lëf la ngay lëfal ba xam lëfi fan la. lëfi fan la waaye lëfi sëñ bi rek a mat a lëfal nag. est-ce <laughs> que. léegi seen lëf la ngay lëfal la. riibal la waaye lëfi sëñ bi rek ko ma téléphone nag riibal la waaye lëfi sëñ bi rek ko ma téléphone nag riibal la waaye lëfi sëñ bi rek ko ma téléphone nag lëfi sëñ bi rek ko ma téléphone nag lëfi sëñ bi rek ko ma téléphone nag waaye lëfi sëñ bi rek ko ma téléphone nag sëñ bi lëfi sëñ bi lëf kese la ngay lëfa bu baax ngay lëfa bu baax ngay lëfa bu baax ngay lëfa bu baax ngay lëfa bu baax ngay lëfa bu baax ngay lëfa bu baax ngay lëfa bu baax ngay lëfa bu baax ngay lëfa bu baax Sama koko koko koko. Aliou sama papa la sama papa mooy lëf la lëf la kooku ay eh, saa baay mooy sama papa lëf la lëf eh, la eh, tontu na la wax na la lépp en grosso modo moom tëj na wax gi yëpp maa ngi ñëw dem doxantu nu def noonu nag ba si live beneen jàkkaarloo nu daal di ñëw jàkkaarloo continuer partager encore audio audio du siècle audio bi ñëw complété ak list bi liste bi day génnaat tey wuu lu ngay saaka saaga saaka saaga tey moom ngeen di fanaanoo déggoo leen waa de lu ngeen mer mer mer mer wëndeelu tey moom ngeen di fanaanoo maa ngi ñëw nekkoon dabb si réseaux sociaux yi léegi dugal ko si page yëpp ak panel yëpp gaa yëpp dinañ ko déglu la Sénégal va en la liste va ressortir waaw waaw di ngeen ma démentir de nee naa la atum yàlla kenn tontuwul léegi kor korñaañe yi ñoo génn di naaw yéen am yi ngeen problème yow problème bu ngeen jël sax xamoo leen ko am yi ngeen problème de comme mbokk su ko defee nu def noonu peace love and harmony ciao sama gars di leen ñaanal yéen ñëpp fu ngeen nekk yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla musal si seytaane yal na leen yàlla musal si korñaaña yal na leen yàlla musal si ñuuxit ak murit yal na nu Sénégal yal na nu waaw yal na nu yàlla àtteeg murit si biir Sénégal yalla na nu yàlla atteeg murit si Senegal. Sénégal yàlla na nu yàlla gën a atteeg Senegal. si biir te yoon baangi clair bo ba legi mo ngi leer claquement après claquement après claquement après claquement te pareegunu nag yaa ngi dégg gaay yi nee di leen claté ba bis bu ni nangu yalla lolu amul ma dem te ñew legi nak ñom ño fay nekk di daw di tëb di yuux gis ngeen manam ni que nak legi lo wax lu ne lo prof wax la ki man bàyyi len mak ancien problème yi man dinaa gérer mais gis ngeen nouveau carte maa di yegg si ut ay giga yu doy ut ay tera yu doy di enregistré di de ay jamono ji téléphone fu ne internet à gogo téléphone ay ñetti caméra ñeenti caméra léegi déggoo ma de ay giga ngay dégg ki tera wuu waxi dootul romb les gars on va tout enregistrer waaw on tout mo li bokkul ak bu njëkk ba benn rajo téléphone amul télé amul ken amul so bëggee passer message da ngay am ku jotali lo, loo eh, c'est fini léegi c'est connexion instantanée xam nga lu connexion instantanée nit day nek Chine sa nga wax ak moom léegi léegi donc ça veut dire que lo bëggoon doul ku nek Chine ça mën nga ko koo duul léegi léegi amatul xaar ba mu ñibbisi am ngeen problème vous avez de sérieux problèmes nee ngeen du possible wàcc fo si du waxu yàlla nee ngeen du tontu si wax que ay saaga la ki tëb ki reewantalu ah di ngeen sonn de lool du leen génnee si dara au contraire day gën a leeral wax du leen génnee si dara maa ngi ñëw nag partager leen wax gi comme nu ma leen ko waxee di leen jéggalu aussi yéen ñëpp si lépp lu ngeen xam ne ni que jot na fee romb góos rek ab nit kese leen comme nu koy waxee ay nit leen yoo xam ne ni que duñuy ñëw di teg ay point di waxtaan ak ay doomu aadama duñu jinne duñu dëmm duñu waliw duñu malaaka xam nga ay nit kese leen matunu matlewunu voilà souvent nu def ay erreur souvent ne kii souvent mu neex mu kii moo tax may lépp daal si baax ñoo ngi koy jël encore rek naan yàlla na ko yàlla waaw soppi ay yiwi yiwi yiwi yiwi yiw jël sotti ko si seen askan sotti ko seen njaboot sotti ko si seen liggéey def ko mu doon euh, euh, ay gën a ay gën a la ay gën a gën si biir Sénégal comme mbokk nu ma leen ko waxee rek nu def noonu comme nu ma waxee fii moom mooy place duul yi ma ne leen nu def noonu ba si duulu Baay Faal yi waaw léegi sa xaaral soo xefle sama page dinaa ko changé dinaa ko tuddee duulu Baay Faal yi comme ça wax gi jeex xam nga point bi ji quoi ma changé page bi sa dee ko duulu baay Fall yi ñun ragalu du lool de waaw léegi man moom nee naa ne waxu Baye Fall waxu ñuuxi dama koo blende waaw tant que 33 femmes yaa ngi doxantu bopp di gën di leer de jour en jour nee naa leen su ngeen bëggee sax eh, man maay di ko euh, lu ngeen bëgg maay na man maay euh, lu ngeen bëgg wasalaam su nekkoon yéen rek ak atte non nee naa leen kas euh, nu nga ti àjjanaw yàlla gi kenn du demee alhamdulilah ba ma demee ba xam ni que yéen du ngeen dara ko julli su leen neexee déggoo leen atte leen ku mu neex jugé leen ku mu neex mais yéen ak yéen kese ah yaay bu loo leen seen bopp dara ay nit ñu mënul lekk ba a àtte nit ay nit ñu nu yor ay nit ñu nuy sarax ay nit yu dundee sarax bëgg a àtte nit moo tax ay ree ngeen may def waaw man may doomaraam su leen neexee su euh, wante daal lu ma wóor ba wóor mooy ah 33 lëf li lëf la lëf la xet bi daal ba léegi moo ngi xeeñ daa ngi dàmbas kanam sum gaay ñu def doon